أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا بلغ رساله القران وادى امانه البيان ونصح الامه ومحو الظلم وكسف الغم عن هذه الامه وتركنا على مهجه بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dañu di ànd ak yéen ci saar bi muy suratul baqara ci kàttanu buur yàlla tabaraka wa taala tey ñu ciy jël ñetti aaya aaya 91 92 93 ñetti aaya yooyu borom bi tabaraka wa taala dañul di ci leeralal mbinum banu israil ci seen jikko yu bon ak seeni jëf yu ñaaw borom bi sax am na lum ñu leeralal ci seeni jikko ci seeni melokaan mu ne yahud yi buñ leen woowee ne leen ñëw leen gëm yàlla ñëw leen gëm alquran ñu daal di feeñal ci seeni melokaan ak seeni jëf ak seeni wax ne ñoom soxlawuñu alxuraan amuñ ci aajo ñoom daal li leen yitteel mooy lañu gëmoon rek démb amma leneen lu bees lu ñu leen di sant ñoom soxlawuñu ko ñuy laye ne ñoom dañoo gëm yàlla démb balaa kenn gëm ñuy laye ne ñoom bu dee yonent Moussa moo leen ci doy bu dee téere tawraat moo leen ci doy keneen gëmul doyu leen ci loolu bokk na ci seen melokaan yu ñu yàlla di leeralal borom bi di ñu leeralal ba tey ci seen ngëm bu doy waar bu toq suuf borom bi di weddi ne même Moussa mi ñuy wax ne ñoom dañ ko gëm kon lu tax ñuy rey yonent yi ku gëm yonent yaakaar naa du rey beneen yonent loolu bokk na ci seen melokaan ci ay yi dinañ ko ci gis bokk na ci ba tey ci seeni melokaan borom bi di ñu wax ne yahud yi dañoo jàpp ca la seeni maam jàppoon lànk bañ koo bàyyi ne ñoom tawraat lañ gëm ndax tawraat la yàlla dijjati woon montagne bi ne leen jël leen ko leneen lu nekk ci ginnaaw tawraat seen yoon nekku ci aaye dinañu jàngal ba tey ne yahud ñu dëgër bopp lañ ndax wax nañoo buur bi yàlla tabaraka wa taala ne ko samina wa asayna dégg nañ ku dégg lan moo war a nekk li ci tegu ñu ne ñoo dégg ñoo lànk li ko waral nag borom bi di leeral li tax lépp ñu dëgër bopp féeteeru mel nii ci mbon mooy seen xol yi la yàlla boole ak nag ba ñu doon jaamu dañ leen dañoo naanal seen xol yi ci nag ba ñu gëmoon nag ba ñu jaamu woon moo tax ñu mel nii mbokk yi ñetti aaya yi insha allah ngoonu yàlla tey gi ci lañ ko fas yéene jeexal bu soobee yàlla tabaraka wa taala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعسينا وأشربوا في قلوبهم الإجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين يقول جل وعلا بور تبارك وتعالى نينا bokk na ci melokaanu yahud ak képp ku jaar ci seen yoon ku mu mën a doon même boo dee jullit bokk na ci seeni melokaan wa ida qiila lahum buñ leen waxaye wa ida su fekkente ne qiila lahum waxeef na leen aaminu gëm leen bima anzala allahu ci li yàlla wàcc gëm leen li yàlla wàcc xaalu nga dégg ñu ne nu'minu ñun de danañ gëm nu'minu gëm nañ bi maa ca la nga xam ne unzila alayna yàlla wàcc na ko ci ñun ñun de loolu rek la ñuy gëm li yàlla wàcc ci ñun daal muy tawraat ñun loolu doy nañu est-ce que yàlla tawraat rek la wàcc moo tax baatu imaan ñu bari ci ñun dañ koy wuyoo di ko tuddoo waaye dafa des wala jegewuñ ko sax su ngeen jàngee usulu salaasa dafa def téere bi ñetti xaaj am usulul awal usulu saani am usulu saalis moo tax mu tuddee ko al usulu salaasa ñetti cosaan ci al usulu saani mooy ñaareelu cosaan lim fay jàngale mooy islam iman ihsan islam iman ihsan ñett yi la fay jàngale lu njëkk daf lay wax ne lan mooy lislaam mu ne la istislaamu lillahi bitawxid wa an inqiyaadu lahu bitaati walxuluusu min ashirk loolu mooy lislaam mooy jébbulu ci yàlla dina jébbulu ci yàlla mooy tomb bu njëkk pour nga nekk tomb boobu ñu ne islaam pour nga dugg ci foog nga def ñetti mbir foog nga def ñetti mbir baatu lislaam mooy al istislaamu mooy jébbulu léeg-léeg nga dégg ñu ne jébbulu moo wóor dëgg la de waaye ci yàlla soo ko defee ci nit alkunga ci yàlla dong la wóor moo tax pour nga nekk jullit da ngay jébbulu ci yàlla al istislaamu lillah wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu dellu leen ci yàlla jébbulu ci moom ibrahima bi ko yàlla ne is qaala lahu rabbuhu aslim lan la wax aslamtu li rabbil alamin balqiis suleymaan def ko daawa won ko xam-xam won ko kàttan won ko nguur ba mu xam ne kii dëgg-dëgg yàlla la àndal suleymaan convaincre ko bés bu muy tuub di nekk jullit lan la wax aslamtu ma suleymaan li xel nangu woon mu ne ah li xel nangu woon balqiis bu mu gisee nguuru suleymaan li xel nangu woon bu doon nit kese kese la lu muy wax maa ngi jébbulu ci suleymaan waaye déedéet parce que dafa xam ne lii suleymaan nekk yàlla moo ko jox moo tax mu ne aslamtu maa suleymaan maa ngi jébbulu di ànd ak suleymaan jëm ci yàlla maa aslamtu maa damay jébbulu ànd ak suleymaan jëm ci yàlla kenn du jébbulu ci nit jébbulu ci nit daf xaraam ku jébbulu ci nit booy da ngay dem safara moom bu ko nangoo bu dee dee dem safara moom bu ko nangoo buy dee di làkk ci yàlla ñuy jéblu kenn du jéblu ci nit al istislaam lillah ñaareel pour nga nekk julit nga nekk ci lislaam mooy wal inqiyaadu lahu bi taa fokk nga nangoo wommatu topp ci ginnaaw yàlla xam ngeen wommatu léeg-léeg nga dégg olof ñu ne wommatal xar mi kuy wommal xar mi lu ñuy def xar mi pour mu nekk lu yomb nooy def xar mi dañuy takk ci buum bi baat buum bi la ñuy takk ci baat bi buum gi dañ koy takk ci baat bi yow miy wamman xar mi nga jiitu xar mi nu muy def ah topp ci yow loolu mooy wommatu da ngay nangu wommatu ci yàlla comme borom xar mu yor xaram di dem xar mi topp ci mais tey bu fekkoon ne da nga jàpp ci buumu xar mi di dem xar mi lànk ne ngurum ci suuf comme xaru tabaski boo jënd miinu la xamu la boo ko bëggee jël nu muy def indi ci kër gi nu muy def day bañ moo tax fi mu nekk nii tabaski ñun ñëpp dañuy jënd dañuy jël dañuy dañuy jël oto wala ñu jël saret parce que xar yi dañuy bañ a ñëw est ce que xar mi dafa wommatu daa lànk yow tamit naka ngay waxee julli laa ba pare daal ne yàlla julli laa mais du ma la topp maa bañ ni ngur faañ malaaka yi di la di la di la di la ngurfaan di la yëkkati naa la far force nga dem di duur ay yet ci ginnaaw nga yow jébbaloo ko sa njébbalu du dëgg bal inqiyaadu lahu bi taa da ngay nangoo wommatu topp ci ginnaaw yàlla ak yonent bi comme xar mi ni mu nangoo topp ci ginnaaw boroomam boroomam jàpp ci buum bi léeg-léeg nga gis waa ji xar mi da koy miin ba du jar buum sax day dox rek xar bi nekk ci ginnaawam di ñëw wala loolu mooy wommatu ñetteel pour nga nekk jullit mooy wal xuluusu min ashirk foog nga bàyyi bokkaale foog nga denc ba set wicc soo ci desee tarfatal ay ni nekkoo jullit la moo tax ñun ñu am problème di nga gis jullit buy bokkaale yàlla ak bu neexee yàlla ak wala barke diw bokkaale la yooyu yëpp boo nekkee ci lislaam jébbalu ci yàlla day set ci yow da nga ciy da nga koy bàyyi loolu mooy première l'islam loolu mooy l'islam gis nga bi mu la jàngalee loolu ba pare mooy dafa am salaasa maratib diine bi dafa am salaasa maratib maratibu diin kam maratibu diin salaasa al islam wal iman wal ihsan bi nga jébbaloo nag léegi ñëw nga ci yàlla léegi nag mu des iman iman mooy baat bii wa iza qiila lahum aminu buñ leen waxee gëm leen bima anzala allah li yàlla wàcc gëm leen li yàlla wàcc lan la yàlla wàcc alquran yàlla moo ko wàcc muy téere bu bàyyi ko ci moom yàlla mu ne sa ngëm du mat lu dul nga gëm alxuraan beneen bi mooy gëm alxuraan yemul ci di ko jàng nii rek comme nii ni ñu def nii nii teer koor rek ñëpp ñëw daw songu jàkk ci jël sa téere jàng bu weer koor jeexee nga sànni téere bi delluwaat ci sa noos loolu moo tax Sénégal ñu am problème parce que ba la ñuy firi alxuraan weeru koor jot fi mu nekk nii boo doon dugg ci jàkka yi jàkka yépp a ngi tafsir alays kazalik jàkka yépp ñi ngi jàng xuraan wala voilà du loolu nag alxuraan bi chaque jour lañ ko war jàng 24 heures sur 24 sa xel sa xol sa lépp danga ko ci war a teg loolu mooy islam mais bala ñuy jàng alxuraan weeru koor jot bala ñuy jàng alxuraan am ku dee bala ñuy jàng alxuraan am ku tabax këram war a toxu kaay leen ngeen wàcceel ma kaamil waaye dafa war a toxu ji dimanche bii di ñëw wala lundi alxuraan bi du pour kër bi du pour tabax bi du pour meuble yi pour borom kër bi la alxuraan bi du pour ku dee yàlla wax nañu ko ci quran surtout Yaasin mu ne li tunzira man kaana hayyan bu ñu bàyyee ba nit ki dee nit bi dee na mu ngi ni tëdd ñëw naan ko yaa ayyuha alladina amanu innama alxamru walmaysir fekk mu ngi dee est-ce que dina ko jëriñ ñu bàyyi mu ngi dee ñu naan ko aqimi salaa wa aati zaka warkau ma rakiin fekk mu ngi ni dee est-ce que day jóg dem jàkka mu ngi ni dee ñuy jàng alxuraan bi mu ngi ni dee na ñu naan ko wa qada rabbuka alla taabudu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana mënatu ko li tunzira man kaana hayyan yàlla mu ne nañu waar waa ji balaa muy dee nañ ko waar nañ ko ko jàngal balaa muy dee parce que bu ñu bàyyee ba mu dee dootu ko defati léegi nag Sénégal loolu la ñuy def dañu bàyyi ba nit bi dee mu ngi ci morgue bi ñu koy sànq gaa yaa ngi jàng alxuraan wala ñu yóbbu ko ba ñëwaat ñu ne nañ def ñañ jàng alxuraan te alxuraan bi ñu koy jàngal defu ci woon dara dara la ci doon dul dara ñu koy jàngal waxuma baaxul de waaye def nañ lu dangereux ndax soo bàyyee bañ sa benn mbokk ñu jàpp ko tëj ko kaso nga ñëw di ko rural liwaa bi yow yaa ko at yaa yaa yaa ko fa yàggal bugg ko de ah kon iman baatu iman aminu na ngeen gëm iman juróom benn keno la pour nga xam ne gëm nga yàlla wala gëmoo yàlla seetal sa bopp ci juróom benn keno yi foo ci toll al imaanu billah al imaanu bil malaika al imaanu bil kutub al imaanu bir rusul al imaanu bil yawmil axir al imaanu bil qadari xayrihi wa sharrihi soo bëggee xam ne gëm nga wala gëmoo seetal juróom benn ponk yi juróom benn mbir yi yow fan nga ci tool al imaanu billah est-ce que yow gëm nga yàlla ba mooy bu njëkk yàlla ci boppam nekkul doomu aadama day ñëw rek ne man gëm naa yàlla comme ni koy comme ni ñun nuñ koy defee nii ci mbedd yi nekk ci mbedd mi koo xam ne gëm naa qaalatil arabu aman na arab yi dañu ñëwoon yàlla gëm nañ dama ne qul lam tuuminu gëmu leen gëmu leen de ngeen di wax rek gëmu leen ndax ku gëm dafa am ay mbir wala ay jëf wala ay wax du ko wax ay jëf du ko jëf ay place du fa dem ku gëm wala yàlla daal di dàq ngëmu ñooñu waxoon ñun gëm nañ yàlla al imaanu billah gëm yàlla kese fa nga jàng al imaanu billahi ah moom yàlla tabaraka wa taala nan la ñuy gëmee yàlla fi mu nekk ni nit ñi fii nu nekk nit ñi dañoo am ay façon ci yàlla am na ñoo xam ne dañoo gëm ne yàlla ñett la wala amul ñu gëm loolu am ñu gëm ne loo gis yàlla la am na ñoo xam ne ñoom ay yàlla lañu am na ñu jaamu garab def ko yàlla am ñu jaamu jant def ko yàlla léegi ñii ñëpp ak yow yéen a yem yéen a yem déedéet ki ne yàlla ñett la yàlla da ko cee génn laqad kafara allazina qaalu inna allaha saalisu salaasa ñi ne yàlla ñett ay yéeféer lañu ñi ne loo gis yàlla la ay yéeféer lañu laysa ka mislihi shay yàlla nurawul ak dara te yow loo gis dara la boroom xam-xam yi jàngale usul dañu ne fa kullama xatara bi zalika fa allahu bi xilaafi zalik fa kullama xatara bi baalik fa allahu bi xilaafi zalik lépp lu sa xel xalaat ne yàlla nii la mel yàlla nekkul loolu yàlla mu ngi ginnaaw loolu yàlla melul noonu ñun ñi ñëpp fi ñu toog ni ku nekk yaa ngi imaginer yàlla nu mel yàlla melul noonu nag loolu nga loolu nga def ba mu rafet yàlla melul noonu te ñun ñëpp ku nekk image am nuróowul ak sa bosu morom fallahu bi xilaafi zalika limaza laysa ka mislihi shay yàlla nuróowul ak dara te yow li ngay gis ne lii lii la yàlla du loolu beneen bi mooy yow ni ngay yow mi ne da ngaa gis yàlla mi nu mel yàlla nu mel ndeysaan yenente bi ñu ko laajee ne ko gis nga yàlla mu ne nuurun anna araahu nuurun leer la anna araahu naka laa koy gisee nuurun nuurun anna araahu allahu akbar moo tax ñàkk jàng alquran bi tax na tey ñu bari ci ñun ñu alku waxuma su ma nee ñàkk jàng léeg-léeg am kenn ku toog fenn bokk téeréem alquran ñu ngi koy jàng da xoola daara yi ni mu bëree xoola ñu ngi julli di jàng alquran non jàng alquran ak dund alquran du benn bu fekkee dañ koy jàng xamuñu alxuraan bi lan moo tax mu ñëw amul njëriñ limaza ittabi'u ma unzila ilaykum wala aminu bima anzala allahu ilaykum gëm leen li yàlla wàcce nekkul jàng jàng kese amul njëriñ masalu lazina humilu tawrat suma lam yahmiluha lan moo tax ñu nekk ay ximaar lam yaamalu bima fii su fekkoon ne jëfe nañ ko yàlla duna ay ximaar lañ mais ñàkk koo jëfe moo tax yàlla mu ne ñii ay mbaam lañ moo tax yow mi naan da ngaa gëm yàlla ba lu la yàlla sant nga nga def naan yaa ngi julli yaa ngi woor est-ce que yaa ngi bàyyi xel ci sa melokaan yi nga mel amul bu ci yàlla bëggul te yow nee nga da ngaa gëm yàlla loolu moo ñu indil problème mooy ñun nanu gëm yàlla ci solo ñun nu munu neexee déedéet yàlla soo koy gëm doo ko gëm yow ni mu la neexee moom ni ko neexee nga koy gëmee déggu leen wax bi de ah dangaa gëm yàlla est-ce que ni yàlla bëgg ñu gëmee ko yow noonu nga ko gëmee loolu mooy wax bi loolu nag la jullit war a war a war a essayer ndax man sama ngëm gii ma gëm moom moo correspond ak bi yàlla bëgg parce que tey yaa ngi critiquer ay nit su benn waaye ñëwee léegi comme ni ko ñenn ñi waxee ne Isa yàlla la yaayam yàlla la yàlla yàlla la lan la leen yàlla wax yàlla def leen a weddi ne leen yéen gëmu leen ma ndax man nekkuma ñetti yàlla man benn laa qul huwa allahu ahad moo tax ñooñu nga mun leen xool ne ñii gëmuñu yàlla safara lañ jëm parce que yàlla moo leen weddi ñi ne yàlla am na doom yàlla mu ne ñooñu ay yéeféer lañ ñi ne isaa yàlla la yàlla mu ne ñooñu ay yéeféer lañ laqad kafara allazina qaalu inna allahu almasih te yéeféer lañ isaa ci boppam dane man ku ne am na lu ma bokk ak yàlla yow yéeféer nga fa lamma ahassa isaa minhumul kufra qaala man ansaari ila allah Isa ci boppam génnul àdduna lu dul wax na nasaraan yi ay yéeféer lañ ñi ñi ci gëm ne moom yàlla la wax na leen ay yéeféer ngeen kon yow tamit nooy nekkee jullit ci sa solo yow ni mu la neexee affaire bi ay texte la da ngay diri sa bànneexu bakkan indi ko ci texte yi wallahi laa yu'min laa yumin ahadukum xatta yakunu xawaahu tabaan lima jitu bihi sa ngëm yàlla du mën a mat gis nga laa yumin baatu imaan boobu ñuy firi fii wa isa qiila lahum aminu baat bi yàlla mu ne wallahi laa yu'min baat baa ngi nii wa isa qiila lahum bu ñu leen waxee aminu gëm leen ñu ne yonent kañ la nit di gëm mu ne xatta yakunu xawaahu tabaan lima jitu bihi kenn ci yéen ngëm yàlla am du mën a mat lu dul day poñe bànneexi bakkanam indi ko ci li yàlla ak yonent bëgg bu yàlla ne woor leen ku woorul yéeféer nga bu yàlla ne julli leen ku julliwul yéeféer nga est-ce que leer na su yàlla ne naan sàngara baaxul dafa xaraam ngay naan jëf nga jëf yéeféer ku weddi yàlla gis ngeen sàcc yonent bi nee na sàcc instant ba muy sàcc gëmul yàlla laa yasriqu saariq hiina yasriq laa yazni azzaani hiina yazni jamono ji ngay njaaloowe ànd ak xale bu jigéen bi dugal sa biir néeg tëj bunt bi ngeen ànd ci kawlal bi yeen ñaar yàlla mu ne instant boobu yéeféer nga doo jullit jamono ji nga jëlee portable jàmbur dugal sa poos waxtu woowu nekkatoo jullit moo tax iman du lu ndaw maa waqara fi lqalb wa saddaqahu l amal day nekk ci xol jëf yi ñoo koy dëggal jëf yi mooy wane ne yow gëm nga yàlla loolu moo tax gis nga ñi gëmoon yàlla bu ñu leen ne yàlla nee na ñu taxaw déglu su pare ñu dem jëfi ñun da ngay da ngay toog nii ñu ne yàlla nee na nga taxaw déglu nga pare nga continuer ci li nga nekkoon gëmoo yàlla wax jee bari rek ñu bari ci ñun am na ñuy julli gëmuñu yàlla woor ba ngoon sax fekk gëmoo yàlla lu tax parce que sa ngëm gi ak ngëm gi yàlla wax du benn moo tax yàlla mu ne wa isa qiila lahum suñ leen waxee aminu gëm leen bima ca la nga xam ne anzala allahu yàlla wàcce na ko gëm leen li yàlla wàcce qaalu ñu ne nu'minu ñun danañ gëm bima unzila alayna li yàlla wàcce ci ñun dong lañu ko léeg-léeg nga dégg ku ne man daal li sama papa ak sama yaay nekk laay nekk bon yow na waaw ak a neexoon boo nga contrôlé ndax sa yaay ak sa papa li ñu nekk dëgg la ba pare balaa nga koy gëm ak a neexoon nga continuer ko man li ma fekk dëkk bi nekk laay nekk ak a neexoon nga leerlu li dëkk bi nekk dëgg la wala du dëgg li nit ñi nekk laay nekk ak a neexoon nga seet li nit ñi nekk dëgg la wala du dëgg ba pare yahud yaa ngi nii yàlla la leen gëm leen li ma wàcc lan lañ ko tont qaalu nu'minu bima unzila alayna ñun ne li ñuy wàcce ci ñun rek loolu la ñuy gëm li ñu wàcce woon ci ñun li ñu wàcce woon ci ñoom passé na jamono ba jàll na tey muhammad moo aye gis nga ba amoon ñaari soxna wala ñett ñeent nga aye ci ñetteel bi nga wàcc dem summeeku ji néegu ñaareel bi yaakaar naa keroog doon dogu de wala ah wala ñaareel bi yëkk yëkk ndogu gi ne la kaay ndogu nga ni ko non ñetteel bi moom moo may toggal ndogu tey keroog kër gi kenn du ndogu lu tax Muhammad moo aye tey tey jii Muhammad moo aye ku yekk kenn du la lekkal ku woote kenn du la wuyu lu tax Muhammad moo woote parce que yàlla Muhammad la yónni amul keneen nag ba Muhammad ñëwee ba léegi keneen koo wuyu ji rek sonal nga sa bopp amul importance amul njëriñ Muhammad rek Muhammad rek keneen amul place ati ullaha eggayu leen ati ullaha wa ati rasul gis nga jaana Muhammadu rasulullah jeex na bi yàlla waxee Muhammad boppam Muhammad la ci teg kon keneen bokkatu Muhammad rek sallallahu alayhi wa sallam su la neexee Muhammad la su la naqaree Muhammad la jeex na foo nga gëm loolu gëm leen li yàlla wàcce ñu lànk ñu ne ñun nu'minu dañuy gëm bi ma unzila alayna li yàlla wàcce ci ñun kese wa yakfuruuna ñuy weddi bi ma waraahu li nekk ci ginnaawam ñu ne ñun tawraat la ñuy gëm ak Muusa leneen suñu yoon nekku ci haaza huwa iman jàngeen yàlla bi muy wax amana rasulu lu mu wax bima unzila ilayhi min rabbihi walmuminun kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin haulaa'i farraqu am la ki gëm yàlla danaan man duma tàqale yonent yi la nufarriqu bayna ahadin min rusuli ñii nag wa yakfuruna bima waraahu isan kayfa yettimu lahumul iman naka la ñuy weddee lépp lu nekk ci ginnaaw Muusa ak Isa ne du dëgg ñu weddi ko te yàlla moo ko wàcc ne nañ ko gëm ba pare ñuy wax ne ñun gëm nañu yàlla wa iza qila lahum aminu ma anzalallah qaalu nu'minu bima unzila alayna ñu weddi lu yàlla wàcce ba pare ñu ne ñun gëm nañ ah man de ci kër gi laay nekk yaay sama papa mais loo wax duma ko def ah nangu naa ay père yaay yaay yaay yaay sama papa mais nag xoolal père loo wax booy mu ko def ku wax loolu fii sa papa lu mu lay wax ah bu ko jigéen waxee jëkkëram waaw yaay sama jëkkër de waaye nag wax dëgg yàlla de li nga wax moom du ma ci def dara. kan moo bëgg a takk jabar ju mel noonu fii ci yéen ah nañ dañ ragal yàlla naka la ñuy waxee ne ñun de gëm nañu yàlla waaye nag li yàlla wàcce ci ñun suñu yoon nekku ci te mooy liñ def de ñun loolu mooy suñu problème léegi ñun jullit yi waxuma sax banu Israël ñii moom ay yahud lañ sax ndax yàlla day wax seeni jikko ndax nit ñu bañ a jël jikko yi yàlla di ñu leeralal ñoom seenu mbon ndax ñun ñu bañ a bon mel ni ñoom mais maal asaf li ci metti ruslu waxuma la waxuma la ñu jël melakaanu yahud yi waaye dañoo dem sax jël aada yahud yi jël seeni melo jël seen seen dundin seen dundin lañ jël wa yakfaruna ñuy weddi bima waraahu lépp lu nekk ci ginnaaw alquran bima siwaahu wa huwa alquranul karim dalla alayhi siyaq alquran la ñu weddi ñu ne ñoom gëmuñu alquran ñun gëmuñu alquran ah léeg-léeg nga dégg jullit bu ne la man gëmuma alquran de gëmuma alquran léeg-léeg nga dégg jula jullit bu ne alquran bi ngeen di jàng amul benn njariñ parce que rakkal la nal nañ ko bu yàgg ba dindi diw gi yóbbu la ilaha illallah moo tax Sénégal mënuñu jëriñu alxuraan Sénégal lan mooy lan la ñuy kañ la ñuy jëriñu alxuraan kañ def ko saafara di ko naan waaye def ko ay xaatim comme li ñu koy defal mbër yi Sénégal seen njëriñ yépp ci alxuraan mooy di ko di ko di ko buxaabaawee di ko buxaaba di ko jël di ko booleeg sobe pour kontaan loo jinne yi kontaan loo seytaane pour mu defal leen li nu bëgg waaw jël alxuraan bu ko def téere buxaaba ah musiba la jullit du nekk bu xaaba wa ma kafara suleyman walakin ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nasa sihra wa ma unzila ala al-malakayn bi babila harut wa marut wa ma yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur moo tax njabar kufru la ñooñu lan la lay wax fala takfur bul weddi yàlla de fala takfur bul weddi yàlla bul jàng njabar parce que njabar kufru la bul jàng kufr la ilaha illallah looloo tax ixwaan yi foog ñu bàyyi xel ay mbir yi nga xam ne méngoowul ak lislaam di weddi li nekk ci ginnaaw tawraat ak injil ku weddi lu nekk ci ginnaaw tawraat ak injil mooy dangaa weddi alquran parce que alquran moo ñëw ginnaaw tawraat ak injil yàlla mu ne te waxuwa loolu yàlla wàcce ginnaaw tawraat ak injil alxaqu mooy dëgg wala alxaq allahu akbar ah gis nga yàlla waxul sax waxuwa xaqun de def cee def alif ak laam mu nekk lan maarifa pour nga xam ne alxuraan mooy dëgg waxuwa loolu alxaqu mooy dëgg loolu nit ñi di weddi téere boobu nit ñi def téere barkeelu téere boobu nit ñi def téere gisaane téere boobu de alxaqu mooy dëgg muy alquran di tey li tax ñu am problème mooy téere bi lañ dundul te téere bi dañ ko war a dund constitution la aw dundin dañoo bëgg a xam nan la ñuy dundee ci kaw suuf téere bi moo ñuy jàngale nan la ñuy dundee soo waxee loolu benn waay ne moom ñu ngi ni ñuy dundee kay xam nañ ko ñu ngi lekk ñu ngi naan ñu ngi solu ñu ngi tabax ay kër ñu ngi liggéeyi ñu ngi fayeeku ñu ngi ñu ngi takk ay soxna ñu ngi tabax ay jàkka ñu ngi dem màkk kon kon ni ñu déedéet loolu yëpp ñu ngi koy def dëgg la de waaye ni ñu koy defee baaxul parce que alxuraan moo ñu war a wax nan lañ koy defee d'accord ngeen alxuraan moo ñuy wax naka la ñuy jullee naka la ñuy wooree naka la ñuy ajee màkk naka la ñuy takkee sëy yi sëy boobu buñ ko takkee ba pare ku góor ki ak ku jigéen ki naka la ñuy dundee naka la ñuy dundee alxuraan boobu moo leen koy wax bu ñu amee kër am doom ñoom ñett ñëpp yaay ji papa ji doom ji alxuraan moo leen di wax naka la ñuy dundee ci biir kër googu alxuraan moo ñuy wax naka la ñuy dundee ci biir dëkk bi léegi nag tey déglu est-ce que loolu ñu ngi ciy déglu alxuraan loolu mooy ittabi'u ma unzila ilaykum bu leen yaakaar ne téere bi day nekk fii rek nekk fee ñu ñu nekk fële ñu ne ñun gëm nañ téere bi ñu ngi ci déedéet Sénégal tey jigéen ñi ni ñuy solo est-ce que loolu islam wax nañ solo ma leen di laaj dama bëgg ngeen di tontu ni ngeen di solo seen soxna yi ak seen rakk yi sunu yaay yi sunu maam yi sunu soxna yi ni ñuy solo loolu la yàlla wax nañ solo déedéet lan moo tax jigéen ñi Sénégal mënuñu solu parce que jànguñu alxuraan xale yu góor yi léegi lii xale bu góor bu bënn noppam daa def kiris karas tubéy ji loolu alxuraan wax na góoru solo lii ñu def métier musique def ko métier nga gis benn waaye ñu ne sa profession mu ne musicien sa profession lutteur mbër sa profession mannequin sa profession jaay PMI vendeur de PMI vendeur de lëkk loolu du métier dafa xaraam lu xaraam kenn du ko du métier ñaata personne ñoo fi nekk nga xam ne bu leen ne looy liggéey ñu indi lu xaraam looy liggéey jaaykatu sàngara vendeur de la beer xaram lu xaram kenn du ko liggéey lan moo tax ñoo ñu liggéey yooyu c'est parce que defuñu aaya bi lam yatt lam yattabi'u ma unzila ilayhim law ittaba'u ma unzila ilayhim ma kaana haaluhum hakaza bu ñu toppoon li yàlla wax kon seen melokaan du mel nii mais lànk bañ a topp li yàlla wax moo tax tey ngeen gis jigéen ñi di solo nii dëkk bi mel nii mel ne ay dëkkub yahud tey yaakaar naa ci yéen déglu ngeen rajo ma ñan ñoo déglu rajo tey journal balaa ñuy ñëw ñan ñoo déglu RFM dégg ngeen benn femme bu am ñetti jëkkër benn jëkkër Sénégal benn jëkkër Londres benn jëkkër États-Unis d'Amérique benn sénégalaise li ma gëm ne mooy musulman la loolu laa gëm musulman am am lan ñetti jëkkër ñett ñett wala wala déglu ko ñetti jëkkër te loolu lañ xewal léegi ah ut jëkkër Sénégal ut jëkkër États-Unis boo toogee vacances nga dem foofu nekk ak moom waa ki ko njëkk a takk moo ko njëkk a liggéey lijjantil kayit mu dem Londres mu jógee Londres dem États-Unis d'Amérique ut fa beneen jëkkër xam nga tax ñuy fooye diine parce que diine ji kenn aaru lu neex nit mu def su ngeen jaaree nii léegi miiru église bi bala muy jeex am na ku yendu foofu di jaay ndékki chaque jour foofu day jaay ndékki ba añ jot su ngeen continuer romb bires doore bires doore moom dama koy tëb moom du tëj alignement boobu ñëpp dañuy jaay ay añ ak ndékki ci ban weer lañ nekk saxu ramadan ñuy jaay ndékki ak añ ñuy jaay ndékki ak añ ci weeru koor yenn saa yi sax nga gis nit mu bëgg laa wax ne wan wooruma day taxaw 5 mètres ak fi muy jënde ndékki daan ne ko dafal ma ñeenti nen ak kilo mburu ak ñeenti mbuusu ndox ba pare di la xool quoi pour nga wax ci dara li may imaan azaa wal imaan li may imaan la hawla wala quwwata illa billah yàlla mu ne waxoon naa leen nañu gëm li yàlla wàcce te loolu mooy dëgg wa huwa moom alxaqu mooy dëgg musaddiqan téere boobu ñu wàcc mu quraan day dëggal lima maahum ñoom loolu ñu yor loolu nekk ci ñoom loolu ànd ak ñoom lima maahum alquran dafa wàcc di dëggal injil di dëggal tawraat di dëggal Musa di dëggal Isa moo tax mu ne wa huwa al haq alquran mooy dëgg parce que dafa ñëw musaddiqan di dëggal lima maahum ñoom la ñu àndal la ñu yore yàlla mu ne bu fekkee ne yéen da ngeen ne gëm ngeen Musa gëm ngeen Isa li ngeen di wax dëgg la ne gëm ngeen leen gëm ngeen tawraat gëm ngeen injil kon xul na nga leen laaj na nga wax ne falima lu tax taqtulu na ngeen di rey ambiya allah yonent yàlla yi su fekkee gëm ngeen yàlla gëm ngeen Musa Isa alquran gëm gëm ngeen injil gëm ngeen tawraat kon xul na nga leen wax falima lu tax taqtulu na ngeen di rey ambiya allahi yonent yàlla yi lu tax ngeen di rey yonent yàlla yi allahu akbar mbokk yi lan moo tax ngeen di rey yonent yi ak boroom xam-xam yi gis nga zaman bi ñu nekk li ñu rey li ñu rey ci ay yonent li ñu rey ci ay boroom xam-xam kenn xamul nu mu toll waxuma la sax réewu yahud yi waaye réewu jullit yi ñooy jàpp ay borom xam di leen rey réewu jullit yi da ngay dem benn dëkk boo xam ne borom xam-xam yëpp dañ leen rey pourquoi parce que borom xam-xam yi dañuy wax dëgg yàlla gi ndax yàlla yonent bi waxoon na borom xam-xam yi al ulama warasatul anbiya wa inna al anbiya lam yuwarisu diinaan diinaaran wala dirhaman innama warasu l ilma warasu al ilma fa man axasa bi axasa bi xasin waafir yonent yi bàyyiwuñ fi dara bàyyiwuñ fi dé dërëm bàyyiwuñ fi ñaar dërëm bàyyiwuñ fi benn million xam-xam lañ fi bàyyi ku ko fi bàyyi ku ko ci ku ci jàpp jàpp ci cër bu rëy léegi nag comme borom xam-xam yi ñoo doon yonent yi yonent amatul ñu jàpp borom xam-xam yi di rey bi yonent amee yonent yi lañ doon rey yonent amatul ñu jàpp borom xam-xam yi di rey li ñu rey ci ay borom xam-xamu lislaam kenn xamul nu mu toll. moo tax yàlla di leen poser question ne leen kon na nga leen laaj qul yow muhammad na nga wax laaj leen fàllima lu tax ñan ñooy waxtaan ci ginnaaw ah fii laa wax fii ci jàkk ji fii ci biir xul na nga wax ne falima lu tax taqtuluuna ngeen di rey ambiya allah yonent yàlla yi min qablu démb lu jiitu lislaam di ñëw yàlla yónni ay yonent ngeen jàpp leen di leen rey su fekkee ne li ngeen di wax ci yéen dëgg la in kuntum muminin yéen gëmoon ngeen yàlla kon question bi mooy yonent yi ngeen rey fu ngeen ko teg est-ce que ku rey yonent ba pare mën naa gëm yàlla fa li ma taqtuluuna anbiya allahi min qabli in kuntum muminin in xarfu lan la xarfu charte ay in kuntum mumin fekkee gëm ngeen yàlla fa li ma taqtuluuna anbiya gëm ngeen yàlla lu tax ngeen rey yonent yi in kuntum muminina fa li ma taqtuluuna al ulama lu tax ngeen rey borom xam-xam yi jàng ngeen yoon ne al ulama warasatul anbiya isan fa li ma taqtuluuna al ulama lu tax ngeen di rey borom xam-xam yi kon wax ji mooy bu fekkente ne yéen gëm ngeen yàlla lii yàlla wax ngeen def ko tax ngeen def ko yéen nee ngeen ñun li yàlla wàcce woon ci ñun dong doy nañu weddi ngeen lépp
demal tëdd ci kaw
hmm? weddi ngeen lépp yemu leen ci weddi lépp mais ngeen jàpp yonent yi di leen rey ngeen jàpp yonent yàlla yi di leen rey fa lima taqtuluna anbiya allah min qablu in kuntum muminin kon baat bi muy baatu in kuntum muminin bu fekkee gëm ngeen yàlla ku gëm yàlla mbir yu bari du ci dugg tey mën nga laaj nit ñi in kuntum muminin fa lima laa tasumuna ramadan su fekkee gëm ngeen yàlla lu tax du ngeen woor weeru koor ngeen ne da ngeen di joxe ndogu dem laa gis benn waaye di tàq benn super di laaj apprenti bi ndogu ñu taal ngan di mbana nag an ko joxel ci ndogu gi yàlla ne woor leen nga gis ab julit bu ne lëng ne man wooruma ndogu laay joxe te yàlla ne woor leen fan ngeen jàng ci alxuraan yàlla mu ne bu leen woor joxe leen ndogu bu fekkee gis ngeen ko benn saar la wax leen ma ko ban aaya la ci ban saar la nekk ban aaya la wala bu fekkee hadis la téere yu gën a wér ci téere hadis yi juróom benn téere la muy kutubu sitta buxaari la muslim abu daawud tirmisi nisaayi ibnu maaja waxuma yi ñooy téere xadis de waxuma yi ñooy téere xadis dama ne yi ñoo gën a wér ku ci gis benn xadis bu yenent ne bu leen woor joxe leen ndagu wax leen ma ko yàlla ne julli leen gis ku ne man duma julli yàlla mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy yonent bu mujj beneen yonent du ñëw ginnaawam benn waaye mu ne non my prophet is black man sama yonent dafa ñuul ah wala du loolu my prophet is black sama yonent dafa ñuul man ñu bind ko ci ay t-shirt séddale ko nit ñi sol ko te yàlla nee na muhammad mooy yonent mujj maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa xaatama nabi ba yonent di ñëw ginnaaw muhammad yonent bi mu ne laa nabiya baadi ñun ñu am sénégal yonent yàlla mu ne jullit ñeenti jabar lay am ñun ci ñun am ñu am ay conteneur u jabar te loolu yàlla waxoon na yonent bi lii xaalisatan laka min dunil muminin xaalisatan laka anta ya rasuli min dunil muminin alxuraan day wax li julitu Sénégal def lii ba pare bëgg a nekk julit su alxuraan waxee ku wuute ak alxuraan yéefér nga moo da yàlla mu ne wa yakfuruuna bi ma waraahu weddi ku juuyoo ak alxuraan rek da ngay nekk yéefér moo tax ñu war a def ndànk alxuraan kenn du opposé ak moom di juyoo ak moom alxuraan wax li nga wax li munu nekk afa tuminuuna bi baadil kitaab lan la ban yàlla la la teg wa takfuruuna bi baad da ngeen a bëgg a gëm benn parti ci téere bi weddi leneen li afa tuminuuna bi baadil kitaab wa takfuruuna bi baad fa ma jazaau man yafalu zalika minkum xam ngeen lan mooy fay ku def loolu illa xizyun fi lxayaati dunia mooy loolu ñu nekkee ni lii xizyi la xizyi li ngeen di gis ni nga am jabar démb ah ngeen di dégg tey la tey ngeen dégg waa ji am ñetti jabar am na lu gën a dangereux loolu wallahi lazim yéen dee dégg jigéen am ñetti jëkkër la hawla wala quwwata illa billah lu waral loolu mooy juyoog alxuraanu karim parce que ña téere bi saa yi ñu wàccee téere bi rek ñu gis ñu gis musiba bi moo tax ay julit mënuñu juyoog alxuraan yàlla tabaraka wa taala téere bi mu wàcc ci ñun moom lañ war a topp moo tax mu sàkku ci yahud yi ne leen topp leen ittabi'u ma unzila ilaykum wa iza qila lahum aminu bima anzala allah gëm leen li yàlla wàcc mënuñu nekk ay jullit lu dul dañoo gëm li yàlla wàcc feek ñu ngi ci sikki sàkka gëmuñu gis nga xarfu sart bi yàlla indi bu fekkee in kuntum mu'minin li ma tafaluna kaza wa kaza baat bi bëri na ci alxuraan de wa tawakkalu ala allahi in kuntum muminin wa ala allahi falyatawakkalu xarfu sart in kuntum muminin kon looy looy foofu la lan lu sew moo fa nekk mooy def tawakkul ci keneen ku dul yàlla laysa bi mumin bu fekkee yow mumin kese nga yàlla rek nga gëm amoo droit wàkkiirlu ci ku dul yàlla bu fekkee ne yàlla rek nga gëm amoo droit jaamu ku dul yàlla moo tax in kuntum muminin lu sew la nag te baat yëpp la baat yëpp baat yëpp ci ibaada yi munu leen wax ne yéen gëm ngeen yàlla ba pare fekk lii yàlla wax du ngeen ko def munu nekk moo tax yàlla yi ñaar may in kuntum muminin in kuntum muminin ñaar la ci alxuraan kenn du ko mën a wañ kon du ñu mën a nekk ay jullit lu dul dañoo topp li yàlla wàcc yàlla mu ne pour wax banu israil ak ñi mel ni ñoom yéen du ngeen ay jullit lu tax wala qad maa ngi waat ci sama màggaay jaa akum indi leen indi woon na leen Moussa Moussa bil bayyinaati ci ay lay yu leer mbir yu ne weng leer nañ al mu'jizaat ay kéemtaan Moussa indi leen lu leer nañ nañ nañ la ngeen def su ma topp ittaxastumul ijla ngeen dem jàpp yëkk bi di ko jaamu Moussa indi leen lu leer ba pare ngeen bàyyi lu leer li dem di jaamu yëkk bi yéen yéen waa Sénégal Mouhamad indi na leen lu leer wala indi lu leen ngeen bàyyi Mouhamad lu mu indi ngeen dem di bokkaane ñii di bokkaane am na ñoo xam ne Sénégal parti bi dañoo xaaju ñetti xaaj ñii ay bokkaalekat lañ nit la ñuy jaamu ñii ay bokkaalekat jinne la ñuy jaamu ñii bànneexu bakkan la ñuy jaamu hawa musique làmb modd kiris karas ba ñooñu loolu la ñuy jaamu ndeysaan ñetti xaaj yi la Sénégal xaaju ku nekk fii toog nag xoolal foo bokk am ñoo xam ne ay xërëm jinne rek jinne seytaan la ñuy jaamu reyal ay xërëm ci la ñuy yenn ci la ñuy fanaan njabar ci la ñuy yenn ci la ñuy fanaan njabar guddi bëccëg njabar di jabar rek jël alquran di ko binde sobe jël kaamil bi di ko dugge duus ngir bégloo seytaane am ñoo xam ne ci loolu la ñuy dee ci loolu la ñuy fas yéene dund ci la ñuy dee am ñoo xam lan lay jaamu nit seen morom lu kooku wax ñu def ñu def seen ne woor leen ñu woor su leen ne bu leen woor bu lu ñu bañ ñu woor bu leen ne bu leen julli duñ julli su leen ne fasal sa jabar nga fasal sa jabar bu la ne bàyyil sa ndey ak sa bàyyi nga bàyyi leen lu mu wax nga def nga def te lii ma wax yëpp gis ngeen ko ci Sénégal gis leen ku ñu ne fi fasal sa jabar mu fase ko gis leen ku ñu fi bàyyiloo ndeyam ak bàyyi mu bàyyi ko gis leen ku ñu fi bàyyiloo julli mu bàyyi yàlla weddi waa banu Israil ne leen Moussa indi loolu ne leen lu leer nañ ngeen bàyyi loolu Moussa indi ngeen dem di jaamu yëkk di jaamu nag jaamu nag lan la tawxiid la bokkaale la tumma taxastumul ijla min baadihi wa antum zalimun ngeen dem jël yëkk bi di ko jaamu ginnaaw Moussa te mu leer leen ne jaamu lu dul yàlla bokkaale la du tawxiid tey ci sunu kër yi di nga fa gis ñoo xam ne ay bokkaalekat cent pour cent première degré première qualité ay bokkaalekat ñoo xam ne bu ñu xëyee ci bokkaale la ñuy xëy ci la ñuy dee léeg-léeg sax nga gis koo xam dafay indi benn xar ci biir kër mu ne xar mi bu ko kenn laal xarum sarax la xar mi noonu lay nekkee ci kër gi ba dee kenn du ko lekk loolu bokkaale la su ma taxastumul ay ji la mu ngi nii xoola kooku indi xar bi ci kër gi di ko jox muy lekk di ko sang di ko defal lépp xar bi kenn du ko laal ba xar bi dee noonu ñu yóbbu ko rek noonu la amee ci nag yi noonu la amee ginaar noonu la amee noonu la amee noonu la amee ci mbir yu bëree bëri te mu ngi ci biir kër yi am na ñoo xam ne sax dañuy def sacrifice seen yaay wala seen pap wala seen doom wala ci seen yaram am na ci ñun ñoo xam ne dañoo def sacrifice seen i baaraam taf yenn saa yi nga nuyu nit nga gis ñeenti baaraam la am baaraamu tànk wala baaraamu loxo léeg-léeg nga gis koo xam dafa sacrifier doomam doom ji dee ne ci kër gi ndeysaan mu muuma wala mu lafañ wala mu gunga wala mu nekk benn handicapé boo xam ne du am xel su ko defee nag kooku mooy nekk xaritam nag parce que moom la def sacrifice moo tax moo am alal instant yi ñu toll jigéen ñi dañuy takk wee wee wee boo xamante ne day rey liir ñu ne boo reyee fukki liir nga am alal jigéen ñi dañ koy takk ji dem ci ngénte yi ngénte boo dem liir bi dee dem rek nga gis liir bi di caddi caddi ñu ne am na ku fi takk wee am na ku fi takk wee ñu ne la boo ci reyee nanga mu xale nga am alal summa taxastumul ijla da ngeen defee ne baat bi yàlla naa leen summa taxastumul ijla mooy nga dem ut benn nag rek teg ko ne déedéet lépp loo teg place yàlla loolu mooy ijla bi fii jeex na yan waa banu Israël moom nag bi ngeen dem jël ko teg ko place yàlla lan moo tax ñu jël ko teg ko place yàlla parce que saamir yi moo leen ne Moussa li mooy yàlla lépp loo teg place yàlla rek loolu yàlla la ci yow gis ngeen sànq groupe bi ma doon wax ne ñoom dañuy jaamu bànneexi bakkan ñooñu loolu ma wax noonu yàlla moo ko wax man waxuma ko de afara ayta man nit taxasa ah lu tax ngeen yeggali ko alxuraan na yàlla moo ko wax man waxuma ko afara ayta man nit taxasa ilahahu hawa bànneexi bakkanam lay jaamu bànneex lu bànneexi bakkan bi bëgg daf koy def bu ko ne bul solu yére du solu bu ko ne génneel sa ween yi mu paccal ko wanal xale góor yi sa ween yi pompe ko mu pompe ko ba mu ngànn ne ko nii génne ko ci biti weeni jigéen ah weeni jigéen nekkatul awra Sénégal ah wala yéen ñii fi kan mu musul gis ween nekk ci loxoom wala kenn ñemewul yëkkati te yéen a ngi ni woor te da ngeen di xool ay ween moo tax ku woor dawal ci jàkk yi nga nëbbatu jàkk yi ñooy rawukaay bi de ku woor ji dem jàkk rek mooy mooy rawukaay bi nga nëbbatu soo julee fajar bi ba nga toog foofu ba nga noot ba ñëw timis nga naan ñibbi sinon rek ñu tafu la sa koor ñu tafu ko dafa am ñuy tafu koor ñu ma amee ñuy agresseur u kalpe agresseur u portable noonu la amee agresseur u koor da ngay war génn fi nga gis ku kiris karas tubayam wala jigéen bu check down wala mu paccali weenam boo fa nekkee di xool sa koor yàpp nga am nga alku jeex na kon foog ñu bàyyi xel ne yàlla rek lañ war a topp yàlla rek lañ war a jaam borom bi ne tabaraka wa taala Moussa indi na albayinaat lay wu leer waaye su ma topp yéen waa banu Israil ak ñu mel ne yéen ittaxastum jàpp ngeen al ijla yëkk wa yëkk mooy nag bu góor yëkk al ijil mooy nag bu góor nag bu jigéen nu mu tudd baqaratun moom la ñuy wax yëkk ah ci olof min baadihi ginnaaw Moussa te wa antum yéen jamono jooju ngeen jëlee yëkk wi di ko jaamu xam ngeen ne yéen kat zaalimuuna tooñ ngeen yàlla tooñ ngeen seen borom moo tax alxuraan gis ngeen alxuraan lépp ku ku ku jàng alxuraan dëgg day xam ne alxuraan dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mënul nekk lu dul waxu yàlla luqmaan bi muy dénk doom ji shirk lan la ko wax inna shirka Moussa lan la wax ñii jaamu yëkk bi lan la zulm la wa antum zalimun bokkaale tooñ la ku bokkaale yàlla rek tooñ nga yàlla moo tax bi ñu laajee yonent bi saa salaam ban bàkkaar moo gën a rëy ci bàkkaar yi ayu zanbin azam mu ne an tajala lillahi niddan wa huwa xalaqak mooy nga utal yàlla denn te xam nga ne yàlla la bind nga dem utal yàlla morom bàkkaar boobu moo gën a mag ci bàkkaar yàlla du la ko baal ak foo mën a nekk yàlla du la baal loolu xanaa nga tuub ko waaye bis boo ko deewaalee safara nga jëm moo tax tribunal bi gën a mag alaxira tribunal bi gën a rëy alaxira atte bi gën a rëy jugement bi cirque la yonent bi sax dafa tiit laaj yore yàlla ne ko waaw lu tax tribunal boobu nan la yàlla tont axluqu wa yubadu xayri wa arzuqu wa yuskaru siwaaya man yàlla maa bind ñu bàyyi ma dem jaamu keneen may wërsëgale ma may nit wërsëg mu woor ba ngoon ma may ko lu mu ndogoo mu ndogu ba suur daan na jërëjëf diw jërëjëf Samba jërëjëf sëñ Samba waaw moo niinal ndogu bi moo seddal ndox moo def ci bisaab bi suukar ñàkk jom weesuwul nga lekk ba suur sant ku dul yàlla ñàkk jom weesuwul loolu diw bi ngay sant lan lañ ci def ki nga sant bi nga lekk ba suur ki nga sant lan la def ci lekk bi lekk bi fan la jógee ku wàcc ndox bi tey da doon taw de ah da doon taw tey ah tey da doon taw bi mu tawee ba rek ku ñu waxoon fayal facture bi foo jëm bi mu tawee ba pare bu yàlla wënoon ñaari malaaka sa buntu kër ñu ne la fayal facture bi wala léegi ñu yóbbu la safara fii ak ngoon sa mbokk yi duñu eggali seen koor ñoom ñëpp dañuy ñëw toog sa buntu kër di jooy xoolal yàlla xéewal yëpp ci moom la bàyyi ko yàlla wàcce ndox mi tooyal suuf si nga ñëw dugal benn gerte yàlla saxal benn gerte bi téeméeri gerte jàng leen sotu baqara yàlla lu mu wax fii kulli sumbulatin fii kulli sumbulatin miatu habba bépp benn màkka benn mboq ngay dugal benn sumbula benn yàlla mën na ma génn ci mi ah téeméer nga nga nga ji benn gerte yàlla génn ci benn gerte bi téeméeri gerte bi ngay indi gerte gi benn saaku la bi nawet bi jeexee nga yóbbu téeméeri saaku ba pare nga dem sant keneen nga sant keneen ndax gëmoo yàlla ndeysaan moo tax sant dafa bokk ci ibaada yi sant ci jaamu yàlla yi gën a màgg la nekk la bokk mook mook duwaa naam asukru wa duwaa sant ak ñaan ci jaamu yàlla yi gën a màgg la bokk doomu aadama jullit ngëm yàlla am du mën a mat lu dul mu sant yàlla mu mu reconnaître mu def itiraaf xéewal gi ko yàlla defal moo tax yàlla wax na ci alxuraan wa amma bi ni'mati rabbik fa haddis ngallaawaay li ma leen defal ci xéewal dee leen ko wax gis ngeen sotti baqara yàlla bi mu ne man doo ngeen war a jaamu mu wax li mu leen defal ba aaya bi di jeex dafa day sànn yàlla yàlla baat bi mu utilisé foofu dafa yërëmtalu mu ne waay ngallaawaay ngallaawaay fala tajaalu lillahi andaadan wa antum taalamun ngallaawaay fala tajaalu bu leen defal lillahi yàlla andaadan ay ndend te wa antum yéen ñii taalamun a xam ngeen ne yàlla amul dendandoo bu leen ko def ndeysaan neexul de sa jabar sax bu la wutaloon benn waaye ba mu dendal tey boo wàccee doo ndog soo wàccoon fekk ñu tegal la ginaar ñaari kilo mburu ñaari butéel boisson pomme ñu teg waaye sa jabar bi mu ko tegee ba pare dafa dem tëdd ci kaw benn dënn góor nga wax war mu ne la yow sa ndogoo ngoogu man fii ci kii laay ndogu tey ginaar yooyu li muy neex neex boo ko boo dompatee ci sa doq bi nga koy dugal da ngay jaawale sa gémmiñ ngi ak sa doq bi deni wala nga ni coppet daal di jël ginaar gi daal di koy dugal ci sa bakkan da ngay jaawale sa gémmiñ ak sa bakkan am benn jigéen dañ ko fekk ndeysaan muy jaay ci mbedd mi muy saaf gerte benn jigéen ñëw ne ko yow yow yëngali ma yëg mu ne loo yëg mu ne yëngoo yëgoo ne yow dañ laa takkal wujj mu ne man ndaw si ne ko waaw mu daal di teg kuddi gi mu doon saafee fekk mu ngi tëral doom bi mu daal di jël bank bi mu doon toog daal di koy boot jël sër bi di roggante bank bi ndaw si ne ko yow bank bi ngay boot di la moromu jaawale bank bi ak doom ji ah xam nga kooku ku jigéen ki loolu la def yow mii tey ginaar yooyu buñ la ko buñ la ko joxoon da ngay jaawale sa gémmiñ gi ak sa biir bi doo ko lekk ndax lim metti lim la def léegi nag yéen ngeen bëgg a jël nit di ko dendale ak yàlla bon ngeen bëgg a jël mbindeef mu yàlla bind moo am ne yàlla moo ko bind ci mani yu mani yu la ko yàlla bindee mani yu xam ngeen mani yu ko xam mani yu fii moom la yàlla tuddee ma in mahin ndox mu doyati ndox mu doyati yàlla nee na moom laa ko bindee waa jooju bi muy juddu loxo yi ko doon teeru dañoo sol ay gaa ndax bugguñu koo laal bi ñu paree dañoo raxasu ji waa ji bi mu deewee ñi ko sang bi ñu paree dañoo raxasu ji doomu aadama ñaar yi la de ñi lay teeru di lay indi ci àdduna dañuy raxasu ñi lay génne àdduna bu ñu paree dañuy raxasu nga jël jël mbindeef bu doyale bi di ko dendaleeg yàlla njuumte weesuwul lii bàkkaar ak tooñ weesuwul nga jël mbindeef di ko dendaleeg allah subhanahu wa taala ndeysaan borom kun fayakun malikul mulk zil jabarut allahu jalla jalaalu nga jël ko di ko dendaleeg nit nit day nelaw yàlla du nelaw la taaxuzuhu sinatun nit day feebar yàlla du feebar nit day sonn yàlla du sonn bépp melokaan buy wone manqué yàlla jomb na ko moo da nga dégg ñu ne alkamaalu lillah doomu aadama moo manqué doomu aadama mooy jékki-jékki reere ginaar ba suur di seetaan teleem écran géant mu jékki-jékki di jeyeex ba télécommande bi ne tëlëf ñu ne ko yaa ngi nelaw de mu ne nelaw ma de nelaw ma musoo wax kenn yaa ngi nelaw ba mu ne waaw nelaw ma de nelaw nelaw nelaw lu daaneel télécommande bi day fekk benn waaye mu yor kurusam de di wir astafurullah kurus gi ne tël ma da nga ne ko yaa ngi nelaw ma de nelaw ma de nelaw ma de moo tax ñu laaj Alaaji Maalik ñu nekk waaw benn waaye bu doon wird muy wird di wird ba caag mu gëmmentu daanu comme mu ngi doon def astafurullah di ci def téeméer léegi kurus gi wadd na ban per lay jàpp pour mu xam fu muy continuer mu ne déet balaa ñuy xool wird bi kay njàpp mi lañu war a xool ba pare ndax lan tukkulóor yi nee nañ gite kabata gada gite kabata gada hadis la bëtay takkataan bët mooy takkataan bët mooy séentiru taal boo nelawee séentir bi ubbeeku na li nga fi def kenn xamu ko kon boo yeewoo jàppi amoo njàpp ah sa nelaw ba yow jàppi rek saa ngi gis ku tëdd ci jàkk ji ñu ne bismillah mu jóg taxaw dama nga jàppi waaye jàppil seex bi ah jàmmal nga jàppi bu fi kàbbar mu dimbali ñu rek dimbali ñu rek dama nga jàpp xaram nga terminé xam nga ne ku xaram moom kooku nekkatul nekkatul ci jàkk ji kooku mu ngi beneen moom xam nga kon ixwaan yi walaqad wallaay jaakum indiloon na leen Muusa doomu Imran yonentab yàlla bil bayyinaati ci ay lay yu leer ay kéemtaan mujiza su ma topp ittaxastum jàpp ngeen al ijla yëkk ba min baadi hii ginnaawam wa antum yéen zalimuna way tooñ ngeen wa is fàttalikul axas naa ba ma jàppee misaaqakum seen dig seen kóllëre gi ma waxante woon ak yéen yéen waa banu israil baatu ittaxastumul ajal mu ne yuridu ilahan abattumuhu fi xiibati Moussa alayhi salaam mooy ba Moussa demee di waxi jeeg yàlla benn waaye bu tudd Moussa Samiri yi ñëw ci waa banu Israil ne leen kaay leen ma wan leen yàlla Moussa ñu ne ko ha mu ne waaw mu ne indi leen indi leen or seen jabar yi nañ indi or yi ñu dem indi or yi jigéen yëpp ñu daal di koy jël mu daal di koy ruyal mu laal leen defal benn yëkk benn nag bu góor bi mu defalee nag bu góor yi ba pare mu daal di tibb ci suufu tànk jibril fasu jibril fi mu daan tibb dëgg mu daal di tibb suuf si daal di koy sotti ci gémmiñu nag bi nag bi nekk or ba pare naanu di yuux di am ay nàññ di yuux mu ne leen lii mooy yàlla Moussa dafa dafa dem fàtte ko fi banu Israël jël yëkk bi di ko jaamu yàlla mu ne tabaraka wa taala fàttaliku leen yéen waa banu Israël axas naa ba ma jàppee misaaqakum seen dikk lan mooy dikk mooy kóllëre al misaaq al ahd al muakkad mooy misaaq al ahd mooy contrat boo xam ne contrat bi bi bi nga koy am pour liggéey dafa ànd ak signature contrat bi dafa dañ ko def ci këyit ba pare ñu ne la sa contrat ngi nii nga bëgg def ñu ne la déet signeel nga signé ci suuf trrr loolu mooy al ahd loolu mooy misaaq loolu la yàlla tabaraka wa taala defoon ak waa banu israil yàlla ne war a faanaa ma yëkkati fawqakum seen kaw ak tuura doj wa banu israil yàlla da leen jël tawraat ne leen jël leen tawraat bi téere bi ngeen jëfe ko bil amali bi ma jaa fi tawraat na ngeen jëfe lu nekk ci tawraat ñu daal di lànk ne duñu duñu jëfe tawraat seen yoon nekku ci yàlla daal di yëkkati benn montagne benn doj ni leen léegi léegi léegi léegi léegi jël leen ñu daal di jël gis nga nit ñi nit ñi chaque jour yar rek moo leen mën a sàmm yàgg yar gis nga tey am na ñoo xam ne wooruñ ñu ngi ci restaurant yi ci mbedd yi di ndékki di añ tey bu ñu jëloon ay policier wala ay nit yu civil lu tas leen ci biir dëkk bi ne fu ngeen fekk kuy jaay restaurant ramasse leen ko ak ñi fay ndékki ak ñi fay añ ñu jox leen ay oto ay oto ñuy dox ci mbedd yi di ko xool ndax di ngeen gis ci Sénégal ku ndékki kon kuy ndékki ca wooroo nooy def ah ndeysaan sama benn rak ci koor gi nii barki démb dafa ñëw kër ga ñuy waxtaan ba ci àgg bu daal di may wax kenn ku mag benn kilifa bu dul woor ndeysaan mu ne moo jabaram duñu woor nee na kër gi xale yëpp ay woor ñoom ñaar duñu woor léegi bu añ jotee dañ leen di aj ci kaw a kaw étage bi ci kaw kaw xam ne kenn du fa dem ñoom ñaar dong ñu nekk fa yem léegi nag xale yi gis loolu xale yi dem dem dem dem waxtaani ji ci mbedd yi daal leen suñu papa ak suñu yaay duñu woor paa bi dem benn kër rek benn paa benn booy ne ko yow yow paa diw yow dégg naa doo woor mu ne ku la ko wax mu ne ko sa doom moo ma ko wax mu ñëw ci kër gi jàpp doon ci kër sa papa du woor nga koy wax fii sa nga koy wax du ma woor nga koy wax nit ñi loolu gàcc loolu loolu loolu du gàcc nga am ay doom ñuy woor yow doo woor loolu gàcce weesuwul loolu mbokk yi allahu akbar xoolal banu israil yàlla mu ne ba may yëkkatee montagne bi war a faanaa ma yëkkati fawqakum seen kaw ak tuura doj wi bi ma ko yëkkatee lan laa leen wax ma leen xusu jël leen ma aataynaakum li ma leen indil aca jël leen dégg leen léegi li ma wax bi quwwatin ak kattan léegi li ma wax jëfe ndeysaan lan lañ def bi yàlla yëkkatee montagne xam nga ku ñu yëkkati montagne ne la boo jëlul dee dañ lay jël wala doo jël tey bu ñu jëloon ay yar def ci mbedd mi rek jigéen ñi di sol col bu baax parce que am na ci Sénégal dëkk yoo xamante ne kenn du fa sol li li jigéen ñi di sol Dakar am na ci Sénégal dëkk yoo xam ne kilifa ya fa nekk charte yi ñu fa tëral dañu ne fii kenn du fi sol lii kenn du fi def lii wala kenn du ko fa def moo tax nit ñi foog ñuy ragal yar moo tax lislaam biñ ci génnee yar bi da dëkk bi mel nii lislaam nguur moo koy aar déggu leen li ma wax de lislaam nguuru islaam moo koy aar nguur mooy aar lislaam lislaam sans nguur kenn du dund lislaam yéen a ngi nii bu ngeen jàppee sàcc su ngeen koy def tontu leen de leen koy dóor ba mu dee est-ce que yàlla dafa ne nañ rey sàcc mu nga tey buñ jàppee ci dëkk bi ku def loo xamante ne jaaduwul au lieu ñu xool li ci yàlla wax déedéet dañuy xool lu nguur gi wax te ñun ay jullit lañ moo tax mu nekk benn benn mu nekk benn bàkkaar boo xam ne bàkkaar boobu ñun ñëpp la tegu ci sunu kaw sunu kaw bopp ñun ñëpp ñun ñëpp ñun ñëpp xalifa général yi la njëkkee nag xalifa général yi ñoom la bàkkaar boobu njëkk a tegu seen kaw daal di jëm présidence tegu ci kaw nguur gi ñëpp xam ngeen bàkkaar boobu mooy lan mooy ñàkk a attewoo lislaam bàkkaar la pour ñëpp léeg-léeg kenn mu ne non ñun suñu yoon nekku ci parce que ñun ah ah kay yéen am ngeen ci responsabilité yan yan démarche ngeen def yan effort ngeen def pour loolu am loolu mooy bàkkaar bi su ñëpp jógoon comme ni ñoom yaanaa maar jógee léegi lislaam taxaw mais Sénégal doo dégg mun ngi wax waxu lislaam xam nga Sénégal saa yoo gisee ñu mer rek ceeb bi lañ yokk wala mburu mi lañ yokk wala gaz bi lañ yokk da ngay dañu ne xaw ma am na ne touché xaw ma lan moo moo constitution ne touchez pas mon constitution ne touche pas mon ama constitution bu laal sama constitution en tant que jullit yow lan mooy sa con constitution l'islam nga naan ngay dem di xeex ci constitution Jean ak Paul ak Albert inil hukmu ila lillah wala loolu du alquran ah inil hukmu illa lillah lii du alquran fala wa rabbika la yuminuun hatta yuhakkimuuka hatta yuhakkimuuka fi ma shajara baynahum loolu du alquran yàlla waxul woon wa man lam yahkum bi ma anzala allah fa ulaayika humul fa ulaayika humul ñett ñun ñëpp am nañ ci responsabilité parce que ñun defuñu benn effort ah buy wane ne ñun ñun Sénégal bëgg nañ dund l'islam kenn deful benn effort bar tey benn waaye daf ma xool ba càgg ne ma yow ci ilimaanu géejawaay yi nga bokk ma noppi waxuma dara mu ne ilimaan yi nga xam ne bu ñu yokkee ceeb ñu mars ma ne ko bokkuma ci lu njëkk li lu tax ma noppi wax na dëgg ci ilimaanu géejawaay nga bokk wax na dëgg parce que man géejawaay laay jiiti wala ba mu ci yokkee baat bee rek damaa bañ parce que man marche ma woon ba ñuy marche courant bi bokku ma joon mu ngi ma fekk màkk bokku ma ci munaa laa nekk munaa ma dégg ilimaanu Sénégal ñi ngi marche ndax courant bi dafa cher ba ñuy xeex ak gouvernement bi bokku ma ci man bokku ma ci loolu man loolu nag moom mun a yëkkati marche mooy ñoo leen ñu samp kàddu yàlla de suba ma ñëw bu ma woo ma ñëw nag bu ngeen ma woowee sax ma ñëw ñun ñëpp dañoo am responsabilité boobu mbokk yi ñu fexe jëm ci constitution islam 2012 ñan ci yéen fi ñoo pare pour woteel l'islam ku pare ci yéen bi nekk ci loxo 2012 ku pare pour woteel l'islam la wax di jël kartam dane sama carte bi l'islam laa koy yem ku pare bi nekk ci loxo ku yëkkatil bokkoo ci am ku pare waaw kon 2012 na ngeen jox seen carte l'islam dégg ngeen nan ngeen ko koy joxee nag loolu mooy wax gis ngeen fexe leen ngeen ku baax ngeen jox ko ngeen bañ ko jox Y'en a marre ngeen président rappeur moom wala président buy bëri wala président musicien président footballeur président franc-maçon mu ni maa rek waaw jox leen président islam ku nekk li nga bëgg loolu ngay uti ku bëgg président la mbër koy fal ku mbër intéressé su mbër mi demee nga fal ko ku rap intéressé bu rappeur bi demee nga fal ko ku jaamu xërëm intéressé soo gisee président bu gëm xërëm nga dem fal ko mu tabax la nga dum xërëm ne la nii nag au lieu mu ne la nii màkka wan la penk bi mu ne la nii sow yow bu ngay julli foo jublu bi ngay julli yow léegi tàkkusaan tisbaar foo jublu penk moom mu ne la nii sow waaw nga dem ànd ak moom damaa bind sama lettre sànni nag ku ngeen xalaat moom la moom la yàlla mu ne tabaraka wa taala wara faanaa man yàlla ma yëkkati fawqakum seen kaw atuura doj wa maa ko yëkkati ci kaw déjjati ko laa ko def man leen xuzu acca jël leen gis nga xuzu fii lu am rin jël leen maa aataynaakum li ma leen indil bi quwatin ci fal force kot bu ngeen koy jël da ngeen koy jël ak doole jël leen li ma indil te bu yàlla defoon noonu yëkkati montagne bi daan ne acca jëfe leen l'islam wala ñu ne léegi léegi ñun ñëpp ñu gis ni yàlla defoon banu Israël jël leen li ma indi léegi te bu leen yem di jël bu leen ci yem rek waaye wasma'u na ngeen dégg encore li ma wax déglu leen banu Israël leen di wane dañoo bon torox alku ak ñi mel ni ñi jaar ci sëti waa banu Israël yi jullit ñi nga xam ne dañoo lànk ne duñu déggal yàlla ay sëtuwaa banu israil lañ xoole yàlla bi mu leen ne jël leen li ma indi bi quwatin wasma'u na ngeen dégg qaalu lu ñu wax ñu ne sami'na dégg nañ wa asayna lànk nañ wala lii du alquran sami'na lu ci war a tegu ndeysaan de xoolal yahud yi ak arab yu kàccoore yi dañ doon bërëxal muhammad di ko bërëxal xam ngeen bërëxal naan muzammaman asayna wa duunu wa diinuhu tarakna benn boroom xam-xam dégg leen ca saxaaba yi ne leen muhammadun ataana wa diinuhu qabilna ñoom ñu ne muzammaman abayna ku ñu ŋàññi ki ñun dañ koo lànk wa diinuhu diineem tarakna bëgguñu suñu yoon nekku ci saxaabatul kiram keroog ba yàlla waxee dañu ne sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana yahudi bi yàlla waxee dañu ne sami'na wa asayna ñu ñaari mbooloo yi mënuñu nekk benn ñun nag ñaari mbooloo yi ban mbooloo lañ ci topp ñoo waxoon sami'na wa ata'na wala ñu ne sami'na wa asayna ku nekk xoolal ci ñaari groupe yi ban nga bokk su yàlla waxee sami'na wa ata'na ñoom yàlla ne leen jël leen xuzu ma ataynaakum bi quwwa wasma'u ñu ne sami'na wa asayna dégg nañ de yàlla mu ne ah dégg ngeen kay ñu ne waaye ñoo lànk toppuñu waaw toppuñu de ndeysaan te gis ngeen melokaan yi yàlla waxuñu ko nii rek pour nettali ko ci nettali ñu ko ci alxuraan ñu daal di weeru koor jot ñu ñëw tafsir ñu wax ni ñu ko nii ñu dégg ko def déedéet yàlla daf ñuy wax lii pour ñu moytandiku balaa li daloon ñii di ñu dal yàlla daf ñuy wax lii balaa ñuy yor ay jikko yahud képp ku dégg yàlla nee na nga lànk ba ñu jëfe li yàlla wax yor nga jikko yahud te yow yaa ngi mbaam yéen a yem masalul lazina humilu tawraat summa lam yahmiluha ka masalil ximaar lu tax yàlla tuddee yahud yi ay mbaam parce que dañu leen a jox xam-xam ñu bañ koo jëfee dañu ne dégg nañ waaye ñoo lànk sami'na wa asayna li ko waral nag lenn la am na fu doomu aadama di toll yàlla dootul wax ba nga def am na fooy toll am na ci Sénégal nit ñoo xam ne kenn mënatul fexe ba ñu wax kenn mënatul ko fexe kenn mënatul fexe ba ñu yeewu fajar dem jàkk kenn mënatul fexe ba nga leen ne yàlla nee na te teguñ ci baat xam nga lu tax wa ushribu fi qulubihimul ijla wa ushribu dañoo bëggloo fi qulubihim ci seen xol ya al ijla yëkk ba soo xasee soo xasee yow julit ba bàmmeel bàmmeel bàmmeel bu ñu defar ba mu rafet bàmmeel bi nga gën a bëgg ak yàlla yàlla dootu la wax ba nga def banu Israël xam ngeen tax yàlla attention de dama leen di wax lu sew ci aaya yi pour ngeen comprendre bàkkaar yi day nuroo te day nekk lu exact lu jub banu Israël lan moo tax su leen yàlla waxee ñu lànk mënuñu koo dégg lu tax nag bi lañ leen taaralal nag bi moo leen gënal yàlla nag bi ñun tamit lan moo tax tey bu yàlla waxee duñ dégg am ñoo xam ne làmb ji moo xolal am ñoo xam ne bu làmb jotee munoo fexe ba ñu julli lan moo tax keroog mënuñoo julli wa ushribu fi qulubihim làmb ñoo xam ne waxuma la làmb marche wa ushribu fi qulubihim marche ñii wa ushribu fi qulubihim mees ñii wa ushribu fi qulubihim kiris karas ñii wa ushribu fi qulubihim alqabru ila axiri banu israil li tax muñu topp yaat seen xol yi la ñu naanal ba xol yi fees yëkk bi nag bi seen xol yi dañoo naan ci yëkk bi ba ni këcc yàlla ne moo tax mënuñu maa topp parce que diddaani laa yajtamiaani yàlla ak keneen duñu fekkante ci xol bi yàlla ne maa ngi fi nga nga bëgg a indi keneen mu nekk fi munul nekk ñaar yu nu roowul munuñoo ànd di daani laa yajtamiaani guddi du ànd mukk ah tàng ak sedd du ànd boo ko weddee léegi dama nga jël lu tàng nga def ko ci kaas bi nga sotti lu tàng li nga def ci lu sedd nu kaas bi def ah day toj du ànd bëgg yàlla bëgg nag bi munul nekk yàlla rek wala nag bi rek yàllaa ngi nii taxaw nag baa ngi nii yàllaa ngi nii làmb jaa ngi nii yàllaa ngi nii musique baa ngi nii yàllaa ngi nii eggali leen yàllaa ngi nii yàllaa ngi nii yàllaa ngi nii da ngay tànn benn rek yàlla rek yàlla rek ngay tànn wala nga tànn kii ah dégg nga ndeysaan xala yàlla mu xadisu bu si ana axana ashirku ani shirki man ashraka maayi xëyri taraktuhu wa shirkahu yàllaa ngi nii taxaw keneen a ngi nii taxaw nga nekk ci digg bi yàlla ne la kaay kooku ne la kaay soo demee ci kee yàlla nee na ma bàyyi laa kooku jàngeen ci alquran wa min annas man yattaxis min dunillahi andaadan yuhibbunahu yuhibbunahu billah am na ci nit ñi yoo xam ne wa min annaas man yattaxis min dunillahi andaadan yuhibbunahu ka hubbillah waaye wallazina amanu ashaddu hubban lillah lu tax ndax ñoom dañoo am imaanu billah allazina amanu ashaddu hubban lillah nooy bëgg yàlla bëgg nag bëgg yàlla bëgg nit bëgg yàlla bëgg bàmmeel bëgg yàlla bëgg àdduna bëgg yàlla bëgg topp seytaane munul nekk banu israil dara taxul mu tax munuñoo topp yàlla mooy wa ushribu fi qulubi maza al ijla yàlla nee na dañ leen a bëgguloo nag ba nag bi la seen xol yi bëgg ba munuñu koo bàyyi tey loolu moo ñu loolu moo ñu dal ñu ngi nii da ngay dégg ku ne la ilaha illallah déglu rek artistes yi ñuy téléphoné ci rajo yi nga dégg benn benn nit kuy téléphoné benn artiste mu ne la ilaha illallah sa musique bi ci sama xol bi laa ko gëm ci sama xol bi laa gëm sa sa kaset bi sa kaset bi daf may yëngal te yow lan lañ la waxoon ala bi zikrillah tatma innul qulub su ma dégloo sa kaset bi rek sama xol bi day fiix te waxoon nañ ne alxuraan mooy fiixal xol la ilaha illallah ngëm dafa sew de foog ñu càmbaraat sunu ngëm bi yonent bi da doon jekki-jekki mu càmbar ngëm mu contrôler ngëm yi bale bale xol yi yëngal ko yëlëb ko këpp xol bi xool lan mooy tuuru léeg-léeg yonent bi këpp xol nga gis salte bu bëri tuuru nga toog ba càgg mu ne amu uminuuna antum ndax yéen gëm ngeen yàlla saxaaba yi ne teg mu ne ndax gëm ngeen yàlla wala yenn saa yi mu toog ba càgg mu ne jaddidu imaanakum saxaaba yi ne ko kayfa nu jaddidu imaanana mu ne qulu laa ilaha illa allah mu téye leen ci point boobu saxaaba yi di yuuxu laa ilaha illa allah ba imaan yi yéeg laa ilaha illa allah day yéegal imaan de laa ilaha illa allah ku bëgg sa imaan yéeg rek dee ko zikr sa imaan day yéeg jaddidu imaanakum nan beesalaat leen seen ngëm saxaaba yi ne ko nu ñuy beesalaatee suñu ngëm mu ne dee leen yeesal laa ilaha illallah ci xol yi nay dee leen ko yeesalaat Moussa bi mu ne yàlla xamal ma benn baat boo xamante ne su ma la ci ñaanee nga may ma yàlla ne ko Moussa waxal laa ilaha illallah mu ne yàlla loolu ñëpp a ngi koy wax ñëpp a ngi koy wax ñëpp a ngi koy wax yàlla ne ko Moussa buñ jëloon asamaan yi juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar teg ko ci benn plate plate blanche ñu jël laa ilaha illallah teg ci benn blanche mu ne la maalat ilayhinna laa ilaha illallah laa ilaha illallah attanul asamaan suuf attanul laa ilaha illallah asamaan attanu ko laa ilaha illallah dara attanu ko ci kaw suuf mooy fi gën a rëy jàngeen yonte bi muy leeral iman lu mu wax alaha bi ci gën a kawe mu ne kalimatu la ilaha illa allah wa adnaha imatatul aza ani tariq ba léegi ñun dégguñu lislaam ba léegi suñu dégg lislaam moo des suñu dégg alxuraan dafa des loo moo tax ñu am problème loo moo tax jullit yi mel nii parce que dégguñu diine bi ndeysaan tukulóor yi dañuy wax ne won ɓe ngannduɗaa ko ɓe yaanooɓe mawnoyde ɓe ngarti ɓe towa déggoye waxɓe de dafa am ñoo xam ne dañoo demoon pour màggi dañoo demoon pour màgg màgg bi ñuy ñëwaat dañ leen a tingoom xam nga ku ñu nax ñu ne la da ngaa njool xale bi bu ko papaam jëlee teg ko fii ne ko léegi da ngaa njool laalal lampe bi mu ne nii laal lampe bi kañ lay xam ne njoolul ñun loolu mooy suñu problème ñun ñëpp dañu ne yéen a ngi lislaam ñu ne allah ñu jege ñu ngi lislaam kay macha allah lislaam léegi ñun gisuñu mbubbu lislaam sax lislaam daa nekk charq ñun ñu nekk xarb nit ñi bu ñuy dund lislaam duñ mel nii ku ku ma weddi su fekkee fii ci jàkk ji am na ku ma weddi bàyyi sa portable ci buntu jàkk ji acca wala nga ak sa calpe ku ma weddi léegi ci yéen fii laa wax tegal xam naa am na ustaas moo mun a fen waaw daa mun a fen léegi tegal sa portable ci calpe ci ci buntu jaagañ nga dem doon ndogu tey de wala balaa ngay ndogu heure bi dina passé nga naan surtout waa ji maa ngi koy woo mënuma ko jot doo ko jot mu nga loolu naan weddi moom gis bokku ci acca kon dundu nu lislaam te dañoo woor de ñu ngi nii woor laa nekk ci jàkk ku ma weddi rek sa portable mi ngi nii teg ko fee ci buntu jaago bi nga dem nga nga dem jàppi nga ñëwaat allahu akbar xanaa xanaa xanaa wooruñu lu nu woor woor nga ku nekk sa bagage mu ngi mu ngi mu ngi ànd ko teg da ngay dugg oto sax da ngaa woor de oto bi ñëpp woor nga daan nii di làmbatu ndax sa portable la sa calpe mu sa portable di xool ki nga denn gauche à droite te yéen ngi woo yéen ñëpp ah waaw mbokk yi affaire bi doy na waar de te xanaa danoo war wala warul kon ku war noonu lay mel kon nekkuñ ci lislaam affaire dafa sew lan moo tax ñi mënuñu jaamu yàlla mooy xol yi nga xam ne yàlla rek moo fa war a nekk dafa am leneen lu ko occupé mooy lan al ijla yëkk wi ñun tamit lan moo tax mënuñu jaamu yàlla mooy suñu xol yi dafa am leneen lu fi nekk lu dul yàlla loolu nag foog ñu génne ko ba mu set ñu dugal yàlla rek diine ji doog a baax normal yàlla rek Sénégal nag nee nañ yàlla kese dafa di tax yàlla yow yàlla rek rek nga gëm mu ne waa ñu ne kii dof la wallahi lazim am nañ benn waaye fii la dëkk boo tourné papaam dafa dee de ñu dem suuli ko ñëwaat famille bi di waxtaan quoi ne dañoo bëgg dëj waaw nañu xool léegi nu ñuy nu ñuy nu ñuy organiser dëj bi mu ne dëj du fi am ma ni fii kenn du fi dëj dëj du l'islam gars yi di ñaan di ñaan di ñaan ba sonn mu ne kenn du fi dëj benn paa Diop daal ne kii bàyyi leen ko dof la yàlla rek la gëm dof dëgg la kii mun leen wax lu mu dégg parce que moom yàlla rek la gëm bàyyi leen ko dégg ngeen wax bi de kii dof la lu tax mu nekk dof yàlla rek la gëm bu gëmoon yàlla ak leneen du nekk dof comme yàlla rek na nag dof la ñi ay dof lañ yàlla rek lañ gëm ñi ñëpp ay dof lañ jàkkaay dof yaa ngi nii bu ngeen bëggee dem ci yàlla fa ngeen nekk ay dof de ndax xam ngeen lu tax dañ ko waxoon yonent bi waxoon nañ ko ne innaka la majnun ndeysaan weddi wut de yàlla naan ko ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun doo dof de ñoom rek ñoo xamul waaye yow dofoo bu ngeen bëggee dund diine foog ngeen nangoo nekk dof ndax ki yàlla yónni woon mu gëm leen waxoon nañ ko dof fekk eggoo ci direct degré ñu ne la dof gëmagoo yàlla ndax waxoon nañ ko ki la fi jiitu waxoon nañ ko ku la gën ndeysaan ñu ne ko dof yàlla di ko weddi ne ko doo dofoo ñu ne ko bu xaaba yàlla mu ne ko bu doo bu xaaba ñu ne ko woykat yàlla mu ne du woykat lu nekk lañ ko wax yàlla mooy ñëw di weddi moom taxawul di weddi de mais yàlla mooy wàcc ay aaye aaye di weddi dem nañ ba ne benn nopp la waaw moo tax yàlla bi mu koy tagg Muhammad mooy ki nga xam ne yàlla dafa tagg làmmiñ bi yàlla tagg xol bi yàlla tagg jikko ji yàlla tagg nopp yi muhammad léppam la yàlla tagg xol bi lan la yàlla wax ma kazabal fuaadu làmmiñ bi lan la ci yàlla wax maa yantixu in huwa làmmiñ muhammad gémmiñ gi yàlla daf ci def signature xam ngeen signature bi lan la maa yantiqu anil hawa yàlla jël kase kase daal di kase ci làmmiñ bi tëf xam ngeen tampon bi lan la in huwa illa wahyun yuha lu mu wax yàllaa ko wax kan moom assurance boobu koo xam ne lu mu wax yàllaa ko wax kan mu kan la yàlla assuré noonu waaw kooku nag war nañu doy wala waruñoo doy ku muhammad doyul ku lay doy allahu akbar yàlla mu ne ñii wa usribu dañoo jaxase dañoo bëggloo fi qulubihim ci seen xol yi al ijla yëkk bi lu tax bi kufrihim ndax weddi gi ñu weddi yàlla sabab baa ngi noonu baa boobu la boroom xam-xam yi naan baa u sababiya limaza mu ne bi kufrihim ndax lan seenu kéefir moo tax ñu bëgg ci seen xol yi leneen lu dul yàlla foo gis ku bëgg leneen lu dul yàlla kéeféer gi mu nekk moo tax mu bëgg leneen lu dul yàlla parce que yàlla ni mu toll nekk borom bi subhanahu wa taala nga bàyyi yàlla bëgg leneen li tax mooy kufru gi wedd bi nga weddi yàlla moo tax nga def loolu nga mën a def loolu soo weddiwul woon yàlla doo mën a bëgg loolu waaw yàllaa ngi nii ak yonentam nekk ci benn camp Demba ak Samba ak Muutu ñu ngi nii nekk ci beneen cas nga ñëw tànn leen bàyyi yàlla ak yonent lan moo tax nga def loolu ndax kéeféer gi nekk ci sa xol bi moo la poussé nga def loolu soo dencul woon kufru kéeféer kon doo tànn leneen lu dul yàlla ak yonent Suhaybu Ruumi sahaaba la woon day gàddaay di dem jóge Màkka di jëm Medine yéeféer yi topp ko mu ne leen taxaw leen ñu taxaw mu ne leen lii lan la ñu ne ko fett mu ne leen man nan laa ci mel ñu ne ko ku jub loxo nga mu nekkoon taxaw leen su ngeen di ngeen ma rey de waaye bala ngeen may rey dinaa jeexal ñu bari parce que man bu fekkee téeméer moo fi nekk téeméer yi benn du mooy bu nekk day rey kenn ñu ne ko alal ji nga yor nañ bañ mu dem mu ne dem leen sama néeg ci digg néeg bi pax bu bees a nga fa su ngeen yegsee di ngeen gis suuf su tooy si su ngeen gasee ba mu xóot foofu laa dugal alal yëpp soxlawu ma dama ko gas ba mu xóot suul ko foofu bu daal leen di bàyyi ak alal ji mu jël ay bagage am jël fettam xeejam yi jubali Medina ci yonent bi saa sallam dafa dugg biir màkk jibril wàcc yàlla mu ne wa min annaas man yastari nafsahu ibtira mardatillah allah am na ñuy jaay seen bopp ngir yàlla jaay seen bopp ngir yàlla ñun est ce que ñu ngi joxe suñu bopp ngir yàlla ku nekk nag xoolal sa bopp lan la la yàlla jaral lan la la yàlla jaral lan la ñu yàlla jaral saxaaba yi dara taxul ñu raw ñu lu dul dafa am lu leen yàlla jaraloon xobay xubay jàng ngeen ko yéeféer yi dañ ko jàpp xam ngeen nan lañ ko doon rey di ko daggati dañuy dagg benn nopp ne ko loo wax ci Muhammad mu ne ma nga ne la Madina toog bugguma dëgg jam ci dàll yi ñu dagg beneen nopp noonu lañ ko def di ko daggati di ko daggati ba mu jeex tàkk delluwul ci diineem lu toll ne tarfata ayin moo tax sahaaba yéeféer yi fekke woon biñ koy rey daf ci am kenn koo xam ne dafa tuub day jékki-jékki bu xalaatee keroog bu ñuy rey xubayb day jékki-jékki xëm ndax bi mu fekkee lool ndax mu nee na mënoon naa kaa sauvé sauvé wu ma mais boobu yéeféer la mais ba mu nekkee jullit affaire bi daf koy jural muy xëm sahaaba yi ñun mu ñun munuñu munuñu buuxante ak sahaaba yi buntu aljanna munuñu ko de mbokk yi kenn si ñun toog fi munoo buuxanteeg ñoom bilaal ñoom ammaar ñoom musab bunti aljanna munuñu ko ñooñu bu ñuy waaxu di dugg aljanna ñun munuñu buuxanteeg ñoom c'est parce que dañ ñoo raw wa min annaas man yashtari nafsahu ibtiga mardatillah ndeysaan ñoom kontante yàlla moo leen gën a lépp lu dul yàlla keroog ba leen gaa yi neen tey ngeen dee yéeféeru yaa ngi dajaloo tey rek ñu rey leen lan la sahaaba yi wax inna annaasa qad jamau lakum faxsawhum lan la ñu wax qaalu xasbuna allahu wa niama alwakil xasbuna allah ñun yàlla doy nanu yàlla doy nanu xasbuna allah ñun yàlla doylu ñun yàlla doylu de ñun la ilaha illa allah wallahi yàlla doylu akkat néew ci sénégalais yi ku yàlla doy waaw non yàlla kese kese non non il faut il faut affaire bi bokk ci il faut li bokk ci ah yàlla ne man deng doy naa yow nga ne yàlla rek doyoo il faut leneen dog dog bokk ci loolu nu mu nekkee iman du lu ndaw yàlla wax na ñii di tax ñu nekk ay yéeféer lu tax nag bi gënal leen yàlla mooy bi kufrihim ndax weddi gu ñu weddi yàlla mu ne hum ñii gaa yi qul waxal yow muhammad bi sa bon na saa yoo déggee bi sa kalima la boo xam ne ñiy jàngale arab dañ naan bi sa kalimatu zammin bi sa kalimatu zammin wa didduha ni'ma kalimatu madax ni'ma rajulu ant yow yaay góor gi gën a baax ci góor yi waaye bu ñu lay xas bu ñu la nee bi sa rajulu ant musiba daal na la yàlla nee na bi sa bon na maa yaamurukum bihi li mu leen di digal imaanukum gis ngeen ni ngëm goo xam ne daf lay digal nga meesu bi sa haasal imaan ngëm goo xam ne daf lay wax bul woor bi sa haasal imaan déggu leen wax bi de wallahi ñun dañuy jàng alxuraan mais dégguñu wallahi alazim xoolal ñi ba ñu tànnee nag bi bàyyi yàlla ba pare ne ñun gëm nañ yàlla mu ne bi sa maa yaamurukum bihi imaanukum ngëm gi moo bon moo yées ngëm goo xam ne borom ngëm gi nag moo koy gënal yàlla alhaza imaan loolu du ngëm il faut ñu dégluwaat alxuraan di ko jàng mot par mot di ko lire phrase par phrase ba pare di ko jàng mu mel ne ñun lay waxal mais waxul ak yéeféer yi su boobaa ñu dégg alxuraan gis ngeen ngëm gi yàlla di càmbar fii di ko tàqale lii dafa lëj yàlla di ko firiñce di ko firiñci pour nit xam lan lay gëm ba banu israil li tax mënuñoo gëm yàlla dëgg yàlla wax nañu ko mooy lan dañoo jël nag teg ko place yu yàlla ba pare ne ñun yàlla gëm nañ yàlla mu ne ngëm gi moo bon lu tax ngëm gi bon laaj la lu tax ngëm gi bon mooy ngëm goo xam ne daf lay wax leneen lu dul yàlla gëm gënal la yàlla ngëm gën te yées loolu wala ñun fi am ñoo xam ne jigéen ñoo xam ne ay mees rek moo leen gënal yàlla mees ba pare dañu war a ñoom gëm nañ yàlla ba pare meesu gëm yàlla ba pare kiris karas sa tubi woor ba pare kiris karas sa silip di feeñ nga ñëw di julli boo sujjootee sax silip bi di génn est-ce que loolu ngëm la est-ce que loolu koor la nekk góor gëm yàlla ba pare bënn sa nopp kan kan mooy kan kan moo moom aada bënn nopp lan ngeen jàng yéen seen aada réew kuy bënn nopp bi ah amu leen fi góor yu bënn nopp am ngeen ko amu leen ko am waaw léegi nag kon loolu imaan la nga gis ku ci woor ba pare nag bënn nopp cheikh bi koor gi benn heure la ñuy dog looy laaj koor yow wooroo da ngay bokk ci association xiifal aywa koy wooral kan ngay wooral yow xanaa mbort yi ngay wooral ak si ndax yi ki la ne nga woor moom lii nga def dafa ko tere yow nga dem woor ba pare bu ko def ah nga gis ci bu xeesal fireeku sol yére yi bon meesu koor gi moom ñaata fan la ci des koor gi moom ren metti na dana metti kay parce que wooroo day xiifal sa bopp ku xiif ak ku woor du benn ku ku woor suba ngoon doo yëg coor doo yëg mettit su mettee sax da ngay muñ ndax da ngay xam ne jar na ko yàlla jar na ko yàlla jar ko am na benn benn waaye bu doon bëri keroog ñu dóor ko ba dara ji sangu gars yi ñu ne jar na ko jar na ko lu tax jar na ko lu tax jar na ko xaalis bi waaye léegi ñun yàlla jarul lu ñu xiif yàlla jarul la nga mer nga mar nga xiif ngir yàlla nga mar ngir yàlla jarul ko kii moom kurpeñ moo ko gënal xaalis ñu koy dóor ba mu sang dara sang ko ñu pare ñu pare ñu ne ko bàyyil bëri mu ne déedéet jar na ko utal leen ba beneen combat jar na ko de parce que day am xaalis yow xiif munoo ko ngir yàlla mar munoo ko ngir yàlla wala sénégalais da ngay gis bu ñu ajee màkk bu ñu ñëwaatee bu ñu leen joxee micro lu ñuy wax aj bi baaxul kaa la jëla comme ñu commencé moo wax leen ñoom aj dem màkk ak añ màkk du benn de dem màkk ak añ màkk du benn añ màkk dina changer tour mais du changer jikko dégg na li ma wax de añ màkk am na ci ñun ñoo xam ne xam nga la lay changer ci ñoom tur bi mais du changer seen jikko ndax buñ ñëwee Moussa lañ tuddoon léegi dinañ tudd Alaaji Moussa tur bi changer na wala changer wul waaye changer wul jikko bi ana Alaaji dem na stade ana Alaaji dem na làmb ji ana Alaaji dem na super ndaje mu ngi cosaan kooku du alxajji ala haaju la kon wana alxajji ko ala haaju déggu leen li ma wax de tukulóor yi ñoo ko dégg kon wana alxajji ko ala haaju muus daa aji woon màkk muus mu ñëw toog ci digg jàkka ji nag di waaraati jinax bu ko ziyaare ji ndax dégg mu ngi maye ndoxu zam-zam ak ay kaala jinax ji bu mu jógee papa ji ne ko doom foo jëm mu ne damay ziyaare ji allah ji muus mu ne doom kaay ma walla añ màkk dina soppi tur waaye du changé jikko de mu ne déedéet papa muus léegi baax na mu ngi waaraate nit ñi ñu ragal yàlla papa ji ne ko muus mu ne ah mu ne xam nga nooy def da ngay gas benn pax ci sunu saal bi nga koy tàmbalee ba ci saalu muus nga toog ci wetu bën bën bi nag di déglu waaraate bi pax bi fi nga koy tàmbalee ci sunu kër gi ba kër muus pax bu gudd nga toog ci bunt bi bul toog ci fauteuil bi toogal ci buntu pax bi nga déglu ko xale bi daa def loolu gas béyeg saalu muus fekk saalu fees dal ñëpp toog mu toog ci buntu pax bi di déglu waaraat waaraat waaraat waaraat waaraat ba caag mu ne ilimaanu màkka nee na am na ñu nekk ci kër yi di lekk ceeb yi dañ leen war a rey yéena ne ko ñooñu ñala rek mu ne ak kenn rek ngi ne rek bu ko jàpp rek jinax daw ñibbi ne pap wax nga dëgg mu changé wul tur bi moo changé changé wul gis ngeen am na ñoo ñoo xam ne allah ji ay dégg benn waay allahu akbar ndeysaan fan yi la maa ngi gis noor foir benn waay waa ji boo ko gisee da nga koy jaawale ak nit ku baax ndax yére yi mu sol waaye bu ñëwee di wax ak yow nga sib ko ndax sàngara lay xeeñ mu ñëw fekk ma maa ngi jël oto mu ñëw di ma turbalee fekk maa ngi arrêté taxi man ak ki ma àndal mu ñëw di ñu turbale ñun ñaar man ma taxaw di ko xool rek ndax sàngara gi mu naan waa ji ne ma xoolal fii la dëkk étage bu leen moo ko moom day aji màkk rek waaye mënul bàyyi sàngara kooku est-ce que àllaaji la àllaaji dina dem màkk ba pare ñëwaat di seet dem stade di seetaani ji làmb te li ma jaaxal mooy genn wàllu rapporteur yëpp ñu nekk ci làmb yi ci bëri ay àllaaji lañ léeg-léeg ñuy wax ba jaagri ñu ne àllaaji diw loo ci xam loo xam ci combat bi àllaaji diw tooñ nañ àllaaji di sax alxaj ay waay waay waay waay Sénégal Sénégal nañ tuub di sax ngëm goo xam ne bi nga gëmee yàlla ba pare ngëm gi mënulaa tere lu bon moo tax yàlla mu ne bi sa bon na maa yaamurukum bihi imaanukum ngëm gii lim leen di digal moo bon ngëm ngoo xam ne da ngay woor xëdd ba pare tëdd ba nga dem fajar julli ji jàkk bi sa haasal imaan non xëdd naa pare damay tëddaat quoi waa d'accord tëddaatal mais demal julli ji fajar ba pare nga dem tëdd non l'essentiel que wallahi démb fii lañ ma ko doon laajee fii wala barki barki démb astaghfirullah barki démb fii fii laa tëdd sama portable sonné France benn waaye di ma laaj ci julli tisbaar di ma laaj di ma laaj dugg ci julli tàkkusaan ba ci yàgg mu ne mais mais suba gi moom amul problème parce que damay damay guddee waaj moo tax ay 9 heures ci suba laa koy julli ma ne ko booboo am problème nag. Ali sa gars yi dañuy déggoo de mbokk bi ndeysaan maa ngi ko xamee ci internet bi Italie kii ci sunu site bi Al Afia fa laa ko xamee ndeysaan ko ku baax day woote diina chaque jour bu dégg ci. mu ñëw woor si fii ndeysaan ñëw ziar si barki démb la ma ko waaj doon laaj ndax xoolal moom pour moom julli tisbaar ak julli ki wax suba gi moom comme dina ko julli 9h rek amul ma ne ko boobu am problème nañ lijjanti bii ba pare balaa ñuy dem ci ñaari yéen mu ne ah ban problème damay guddee tëdd damay sonn ma ne ko ban heure ngay tëdd mu ne heure bi may wàcc ba xool heure bi ak heure fajar benn la julli ba bëri tëdd mu ne loolu mën naa nekk est-ce que hee xoolal loolu ndax loolu mën naa nekk waaye nag ku baax la de waa ji ku baax la de parce que comme mu ngi woote ndeysaan di laaj sax affaire diine tane na ndax am na ñoo xam ne gunóor yu ñuul yi ñoo leen ñoo leen tane gunóor yu ñuul yi ak sindax yi ñoo leen tane ñooñu jéemuñu sax julli dem nañ ba ñooñu nga xam ne bu ñu fakkastaloo dañuy jaaxaan duñu duñu dëpp ndax i ñaane seen yàlla seen jë bu ñu fakkastaloo ku fakkastalu noo war a def booy daanu daa war dëpp ñoom dañuy jaaxaan ndax iñaane yàlla seen jëf ba pare boo waxee ñu ne ñun gëm nañ yàlla imaan boobu nag la yàlla di wax bi sa maa yaamurukum bihi imaanukum aka bëri fii bi sa imaan aka bëri bi sa imaan bëri na ci ñun de bi sa imaan imaan boo xam ne yow terewulaa mooy yàlla bi sa haasal imaan imaan kay day tere nit mooy yàlla xoolal ñi amoon imaan jigéen ñi demoon marché aaye muuraay wàcc yàlla ne waxal jigéenu jullit ñi nañu muuru dañoo taxaw yónnee seen kër yi pour ñu indil leen ay col ñu muuru am na ci jigéen joo xam ne doom ji ne ko ne yaay demal ba kër ga mu ne ko bu ma teggee tànk dégg waxu yàlla jëfuma ko bu ma dee damay dem safara fii laay taxaw balaa may bougé moo tax yaay ay sa mu ne yàlla na yàlla yërëm jigéen ñi ansaar keroog ba ñu déggee yàlla nee na jigéen dafa war a muuru dañoo xotti seeni lafu sër teg ci seeni bopp yonent bi day nekk ci marché bi di dem ba caag mu seen benn waay bu takk lam lam mu ñëw ba ci waa ji daal di jàpp ci lam bi xëcc ba lam bi deretal ci loxo waa ji mu dóor lam bi ci suuf mu ne ko walaw mitta wa haza fi yadika ma aflahta abadan soo deewoon nga deewaaleeg lam bi doo dugg aljanna yonent bi wan waa ji ginnaaw gars yi ñu ne waa ji jëlal salam mu ne yonent bi du tekki xalu safara sama loxo ma koy takkaat ñoo ñoom imaan loolu mooy imaan imaan mooy yàlla nee na nga ni ah mbaax ne dafa araam nga ni ko nii dootul ñëw ci bopp bi waaye eh mbaax ne dafa araam nga naan i non bul dëbbu ndox yow non baay baay bul baay bul dex quoi di di di ko pantal loolu imaan xam ngeen fi may waxee de yal nañu yàlla yërëm mbokk yi dañoo dese de dese nañ lu bare bare bare bare oto yi oto yi li ñu war a daw des na train bi li mu war a daw des na avion bi li mu war a naaw dafa des il faut ñu yokk effort fi ñu toog ci l'islam fi ñu fi toll ci l'islam dafa nekk à terre foog ñu jóg position bi ñu toll dafa faible dafa faible suñu ngëm bi moo faible ngëm bi imaan yi dañoo faible foog ñu yokk il faut ñu bouger ngëm dafa am lu muy tere nit ngëm dafa am boo xam ne bu fi doomu aadama tollee ah ku la xool xam ne kii am na ngëm al waxt ma jeexal aaya bi mu ne bi sa bon na maa yaamurukum bihi lu mu leen di digal imaanukum seen ngëm in kuntum mu'minin bu fekkee gëm ngeen yàlla su fekkee gëm ngeen yàlla ngëm gii li mu leen di digal dara baaxu ci ku gëm yàlla ñaari ngëm yi du nekk benn ku gëm yàlla saa yoo ko fekkee muy def lu bon démb maa ngi doon fàttali mbokk yi aaya sàngara bi yàlla ne innamal xamr wal maysir wal ansaab wal azlam rijisun min amali shaytan omar nee na allahuma aaya ba muy continuer lan la wax faal antum muntahun omar ne allahuma antahayna minu dañoo jël sàngara si da ngay gis ku dem këram ubbi saal bi yenu ndaalu sàngara si ñëw ba ci mbedd mi ni ko tiw keroog wa ñiy jàngale siira nee nañ dañoo toj sàngara si ci mbedd Médine ba bi naaj bi tàngee ñi nekk ci mbedd mi di noyyi xet bi yëpp dañoo mandite naa ne ndax sàngara si niñ ko tuuree ci mbedd yi mu nekk waame di wala ngaan loolu mooy imaan imaan daf lay fekk ngay def dara mu ne la bàyyi nga bàyyi defal nga def waaye imaan boo xam ne bu la ne bàyyi danga daan ba ma mag ba ma mag ba ma mag non xaaral tuuti doo booy temps yi instant yi ma fi ma toll nii mais non mënaguma def yenn yi xaaral ma gérer ba ci kanam xaaral may làng ba ci kanam làngal bisa ngi ñëw di nga làng li Abdoul Aziz Touré di wax nee na ko ne bàyyil noos mu bañ te nee na noos nuus eggay leen ko noonu ak seen xel nag da ngeen a woo noos nuus ah yéen a ko wax de man moom damaa woo ana saa yi gis ngeen wóorul nañ jaamu yàlla aaya yi ñu doon jàng mu nekk ñetti aaya liñ ciy jëlee ñeenti mbir la bu njëkk mooy mashruiyatu tawbiixi ahlil jaraimi ala jaraimihim isa azharuha masruiyatu yoonal nañ ci lislaam maye nañ ko tawbiix ñuy xas ahlul jaraim ñiy def ay crime ñu leen di duut baaraam di leen xamal ne ay criminel lañ ñi tax nit ñi mënuñu jaamu yàlla wommat nit ñi di leen yóbbu ci ay caaxaan ci fo ñu duut leen jam leen baaraam xam leen leen ne ay kàccoor ngeen waaye kañ la ñuy def loolu buñ ko feeñalee loolu dañ koo yoonal kenn warul gis kuy def lu bon nga noppi ci saa yoo gisee kuy def lu bon nga noppi ci mbon gi muy def yaa ngi moom yéen a yem saakitu anil xaq seytaanun agras ku gis dëgg noppi say seytaane bu muuma nga kon islam moo ko yoonal islam moo yoonal ñii ñu dëkkal ci Sénégal ñu jël xeet wi nar leen a dugal jahannama ñu joxoñ leen jam leen baaraam ndax ñu deltu ginnaaw ñaareel mooy juratul yahud ala qatlil anbiyaai wal muslihina min annas kàccoore gi nga xam ne yahud yi kàccoore nañ ko ci rey ay yonent ak nit ñu baax ak boroom xam-xam yi bépp jik bépp xeet buy rey say boroom xam-xam yor nga jikko yahud ndax jikko yahud mooy rey yonent te yonent yi boroom xam-xam yi ñoo leen fi yuutu al ulamaau warasatul anbiya ñetteel wujubu axzi l umur alsharci bilxazmi wal azmi wal quwa wujubu war na axzi jël alsharci umuru sharia sharia li ñu sharia islam di sant dañ ko war a jël te loolu bu ñu koy jël duñ ko jël nii à la légère xuzu ma aataynaakum dañ ko war a jël en force matt ko ak sunuy dëgëj addu alayha bin nawajis gis nga tey jullit bi daf ku ko gis dafa war a xam ne kii jullit la te mu am ci ful la am ci faayda waaye am com nekk yambar complexe ba rus ngaa wax sax asalaamualeykum anaay bonjour gaa yi nu mu demee jaa jëfaay ma nga dëgër way moo la gënal nga wax asalaamualeykum ndax complexe asalaamualeykum boo yegsee Sénégal ci place nga ni asalaamualeykum dañ naan xanaa ki Arabie Saoudite la jógee nii la ñëw dañ lay xoolaat dañ lay xoolaat ndeysaan mel na yow benn ñooñu jógee ci kaw asamaan di wàcc suuf nuñ tudd dañ extress extra stressant yooyu dañ lay xoolaat quoi yow comme dëkkoo ci Sénégal quoi asalaamualeykum dañ lay xoolaat asalaamualeykum rek ñu lay xoolaat boo ñëwee ne jaajëf waay kenn du la xoolaat waaw kii ci saaba yi la quoi kii ci saaba yi tooñ ngeen saxaaba yi de da ngeen waroon wax kii ci fàqmaan yi la waaye saxaaba saxaaba yi kay kooku mel noonu du ci bokk saxaaba yi kay ñoom asalaamualeykum lañ doon wax waaw ñoom xamuñu lii ñun ñu nekkee saxaaba yi xamuñu ko woon saxaaba yi ñoom xamuñu ñun lii ñu nekkee kon dañu war a jël sharia amee gis nga lan la ñu wax bil hazmi ci dogg wala azmi ak xër waaye wal quwa ak kàttan ñett yi boo bëggee dund diine lislaam foog nga def ñett yi foog nga am azm am hazm wala ci quwa waaw dañuy gis ku kuy julli xabdu sax nit ñi sa loxo ñu ne la hii rek nga wàcc xuux rek xuux nga wàcc saaba yi ñu leen doon caw ja gisu leen histoire Bilal lan moo indi ahadun ahad dañ ko dóor ba yàlla fotti sagaram Sumayya dañ ko rey Yaasir dañ ko rey Xabaab Ammaar yaa ngeen islam borom xam-xam yi dañ naan akara islam akara la ku bëgg akara da ngay ñëwee kaay islam akara la waaw boo bëggee islam ci sa biir mbokk sa biir kër sa famille da ngay ñeme kaan yi dara bu fekkee ne am na benn xale bu góor bu ñemee nekk rappeur ci kër gi amul problème xale bu jigéen bu ñemee nekk disquette ci kër gi amul problème xale bu góor bu ñemee nekk disco ci kër gi amul problème yow nga bëgg a nekk sunnit am problème sa yow la ñii am fulla di sol lu bon yow nga bañ am fulla sol lu baax nga am complexe xale bu jigéen bee am com amul complexe ci dafa def yaramu neen ci mbedd mi yow nga muuru muraay bu daj am complexe di ragal di moytu abadan ibrahima lan la waxoon gaa yi ibrahim bi ko gaa yi ne boo moytul xërëm yi da ngay alku léegi nga dee da ngay dem safara lan la wax mu ne leen yéen ñi bokkaale ragalu leen man mi gëm yàlla may ragal ñaari kuréel yii ñi bokkaale ak ñi gëm ñan ñoo am am ñan ñoo nekk ci njub allazina amanu walam yushriku bi imani walam yulbisu imanahum bi zulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun yàlla tontu ñi nga xam ne bokkaale wuñu seen ngëm jaxase wuñ ko ak leneen yàlla nee na ñii ñoo gëm yàlla ñii ñoo nekk ci sécurité ñii ñoo am connexion mbokk yi ñeenteel fi ñuy jeexale mooy al imanul xaq laa yaamuru saahibahu illa bil maaruf al iman alxaq la ñuy wax de al iman alxaq ngëm dëgg ngëm dëgg laa wax dëgg dëgg ngëm laa yaamuru du digal saahibuhu borom ngëm nga illa bil maaruf lu dul lu baax kon koo gis mu nga ne gëm naa yàlla def lu bon gëmul al iman alxaq ngëm dëgg laa yaamuru saahibahu illa bil maaruf والايمان الباطل المزيف يعمر صاحبه المنكر بالمنكر ngëm gu dëgguwul ngëmu banditisme ngëmu caaxaan ngëm kiris karas ngëmu nees ngëmu xeesal ngëmu dorog ngëmu bokkaale lan lay digal boroomam lu bon rek waaw woor ba ngoon ñiy nodd ngay ngay ndogoo cigarette war ba ngoon di ndogoo cigarette waaw bi tàndarma bi bi tàndarma bi daan allahuma la ko sumt ñaareel bi mooy cigarette moo ne wala risqika aftartu aftartu wala risqika aftartu alhaza iman loolu du ngëm war ba ngoon di ndogoo cigarette war ba ngoon di ndogoo sàngara la hawla wala quwwata illa billah yal nañu yàlla woon dëgg wërsëgal ñu topp fi lañu yem ba suba insha allah ci kàttan yàlla tabaraka